amiru maqamatin léemu jurafet la ko defal maqama mi lim lambo mooy tuub abu zeydin tuub nekk nit ku dëddu àddina jox ko jàkka di jaamu yàlla waxtu wu ne bàyyi nguur génn jëmam jox tàkk loolu la maqama bi lambo dina bu baax a baax tawbatu abi zeydin wa luzumu almasjida loolu daal mooy naw doxal maqama bi haka nettali na alxaaris ibnu hammaam mm. qaal mu ne mm. usinatu yégale woon na ma yégale doon na ma mm. fi baadil ayaam ci lenn fan yi xam man yàqare joo xam ne barraha tat na biye ci man istiaaruhu lakkatam wala ate feeñ ale ye ci man mm. si aaru ko mandargaam doo mosaam benn fit benn bis mm. wala yenn bis mm. ma yëg jaaxle te jaaxle e ga dugg na ma dugg ga ma dugg tax na feeñ na ci sama jëm ci man pour saan yëgalee woon na ma fii baax del ayaam fan yi xam man njàqare mm. lu xam ne barraha tat na mm. biye ci man istiaaruhu lakkatam lakkam mm. wala hatte feej han liye ci man shiaaruhu mandargam wa kuntu nekkoon naa samiatu di dégg ne anna hisiyaana majalisi sikri naka dikkal jatayi sikar yi léegi bu ñuy jàngee xam-xamam fu ñu ko jàngalee ak fu ñuy tuddee yàlla hmm. yetro dana mu huññi xawaasiyal hmm. fikari hmm. murayi xelaat yi dana dégg ne barabu siikar ñaare boo fa demee dana lay dindil kiiraay boo xam ne tax na sa mi daal man da ah, daal xam na loo bu la soo demee ci majalisu sigri man mm. nay deñ mm. isa isa maratum biriyaadil mm. jannati fartaan bu ngeen rombee dëri àjjana na ngeen ko wut waaw mu ne bu ngeen di dox ci àddina ba ngeen gis ab tooru dëri ci dëri àjjana yi na ngeen ko sàmm tuuti mu ne wama riyaadul janna mu ne mooy xalaqaatu sigri mooy xalaqaatu sigri إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلقات السجن wadaan wu kunt nekkoon naa sami'tu de dégg ne anna xisiyaana majalis sigri naka dikkal jataay yi sikar yi yadro dafay wuññi xawasiyal fikri murayi xelaat yi falam ara gisuma hmm. li it fa ima ngir fay li nga xam ne bi bi nekk na ci man hmm. na jamra ci ceqal hmm. illa qasdal jaami'e ndare jublu juma bil basra ci ci basra ma gis ne man daal li may yëg nii daal jarul may ko jàngatal kenn su ma demee su ma yeboo ma dem ci juma yi busra ja afalam arajisuma li itfaima ngir fay li nga xam ne hmm. biya nekk na ci man a jamrati ci xal hmm. illa qasdal jaamee dara jublu jumaa bil basrati ci basra hmm. wa kaana te nekkoon na jumaa ji issaaka ca boobale ma huulal masaanidi de lu ñu ñoñale ay weeluwaay mooy ay borom xam-xam yu mag a mag ñoo ko daan nekk de liggéey mm. loolu may wax bi mm. ma wulal de de lu ñu ñoña de lu ñu ñoñali ay wéluwaay mm. mooy ay borom xam-xam yu mag a mag a mag ñoo masfuural mawaarid de lu ñu feesal ay rotuwaayam mm. rotuwaay bu fees mm. mooy rotuwaay bu xam ne nit ñi bëri nañ fa mm. te amul masfuu mooy ñam yu ko wër de lekk bëri nañ te itam yu mag yu bëri bëri bëri nit ñoo yu tanaa dem na kotte min rayaatihi ci daram ak ay hirul kalaam ay tóor tóori wax soo bëggee dégg wax yi kama dëgg dëgg boo ko demee ko dégg woyut ma war def na dégg fi arja yi ci wàllam sarirul aqlam baati xali mbay soo bëggee gis nit pour gerte àddina xenu ci xam-xam xenu ci boromam danga ko gis soo demee da nga ñi nga xam dañoo soxla waa bind ñu ngi seeni téere di bind ñu soxla waa jàngale ñu ngi jàngale ñu soxla waa jaamu yàlla ñu ngi seen dog wér fantalaxtu ma boyu ilayhi jëm ci jumaa ma jëmali jumaa ja xayra waanin duma doxadi te doxee xam lan wala lawin duma boyu ala soanin ci menn mbir nangu ma dara gàllankoor falamma wati itu ba ma dëggee xasaabu jemraay ba ma demee ba dugg ci jàkka ji sama tànk tegee ci suufa jàkka ji wata sarafu tema seen mooy ma sappo ak tasaawu fu gën a sori ci jàkka ji xam ne maa ngi seen pegg ba wata sarafu tema sappo mooy ma seen ak tasaawu fu gën a sori ci jàkka ji hmm. tara a feeñ na lii ñaal ma su hmm. asamarin boromi sagar baali yetin lewe xar dama seen ku xam ne yëre yim xam naa tuddee ku man boppam ay sagar lako ko mën a tuddee mm. te sagare loolu itam la def mm. xam nga sagar moom raf ko la baaxoo mm. kon bali yetin bi guddi ku dooli fo nga xam ne ko na waaye xëy na sagare lool daal la aw ka saxratin ci kaw doj aali yetin wuraaji kawe mu ngi yéeg ci barab bu kawe waqar asabat te mbir moom wër na bii ñoom wasagun ay mboolo mboolo yu bëri ñoo ko wër ñu xam ne layu saa defu takk mm. adidoom seen lim ñu xam ne kenn mënu la wax nañ toll ci bëri mm. wala yu naa daa te defu hoo mm. wali doom seen gune mooy ñu bëri ñoo fa nekk moom daal yëre yim sol yëre yu sagale la ci benn doj bu kowe la xéeg itam mbooloo mu takko takko ñu ko fabtalaat ko ma jakkalante xas dagoo jublum ma ne xaaral ma jëmali fële wata warrat mu wuta root wir dagoo dogam bàyyi xel lu ko déggee la baalo wata warrat mu wuta root wir dagoo dogam wala jow to ma yaakaar an ba ma fekkat sifa i sama saafara ande woo fa moom ma yaakaar ne daal suma li may jàngat suma demee man nay saafara walam asal beñuma ata naqalu di toxolu fil marakizi ci barab yi parce que ku ma sori la te naa la barab bi dafa bëri nit bu ko defee ma bàyyee ko fi ma taxaw jëm ci moom woo xa woo wade woo di may du mooyu allah kisa felug baax a baax aji dóor wal waa kisa ak aji aji naj aji dóor dégg nga dina ko baax a baax ñene al al ñene allah kis mooy kuy mbéj mm-hmm. moom moom mooy waa kis mooy mooy am am ñaari bari benn la dóor la rek xeeru dóor la rek ñenn mm-hmm. ñi wax ne déedéet allah kis mooy kuy mbéj ñenn mm-hmm. ñi mooy kuy jañ bat bat bu bëri coow daal waxotee may allah kis aji dóor wala waa kis aji dóor léeg ma jaar baral ñi këluma yow da ngay font da ngay yaa ngi yàq bii mm. waaye man gannaaw dem laa bëggee xutuma mm. koy waxante kenn xutuma mm. tontuwante kenn man daal lu waay wax waxal lu waay defal maa ngi ci yoon wa rek ilaa jalastu ba ma jékki tujaahoo ci njëxam waaye su amintu fu xam ne hóodu naa istibaahu lëntam ma dem ba jàkkaarloo moom ba nga xam su fekkee xamoon naa ko. danaa kum la. su fekkee xaw ma ko waan itam. danaa ne tey laa ko loo ji. oui daal ci mbetteel woo moom seexoon naa suñu góor la ak ndeke abu seydi ne sarooji mm. la. laaree ba déet si kër bii da ca nekk. Mm. wala lëbsate wala lëbsate de benn lënd. yokk bii de ko lënd. ndeke abu seydi. Mm. kon dara daal di wuññee koo xam ni sama bi mar abu ci gisam. man nag ba ma ko gisee. Hmm. foofu laa tàmbalee xamaale xel moo dal ma. Hmm. wal fadda dal di tasaaroo katiba tuxan mi. Hmm. xare samay jàqare. ba waral la jaaxle gi commencé day. wa hiina raani waxtu bu ma gisee mu Abu Zayd. wa basura te mu gis bi ma kaani ci sama barab. bi ma gisee ba xam ne toog na hmm. dafa mel ni lim doon wax man la ko doon néegi hmm. bi ma yegsee ba toog rek hmm. xaala la wax ne yaa alal bu sayra fan xag dafa wax ne moom lu bon lu ne dem na ko dafa bëgg ku ko ñaanal mu nit ñëpp ñaanal ko bañ ko ñaanalee ba mu ko génnee mu ne moom dafa doon naxe waaye ñaan gi nangu na fi mu daal moom moom moom yëg na daal yëg na daal ne moom ñoom ci leen keneen mu ne yaa alal basra ayeen ñe waa busra raakum yal na sàmm leen allahu yàlla waqaakum te yal na mu leen fegal lépp lu ngeen di ragal lu ngeen di ragal wa yal na gën di tuqaakum seen ragal yàlla yéen waa busra maa ngi leen di ñaanal Mm. maa ngi leen di ñaanal itam jiwu àddina gu àllaaxira mm. ragal yàlla gi ñu leen xamee yal nay gën di dëgër mm. yal nay gën di sax fama lëf lu màgg adwaa bondil na rayaakum seen xañ gu ne dëgg dëgg seen tur rafet na ci àddina bi waa fama lëf lu màgg adwaa bondil na rayaakum seen xañ gu ne ya waa xala te mu gënal matayaakum seen i te itam am ngeen ay may yoo xam ne may yu tànnu la te seen may bopp la masiya mooy seen may baladukum seen dëkk bi mm. de busra mm. aw fal bilaadi moo gën a matale ci dëkk mm. tuuratan ci la seen dëkk bi amul benn dëkk buñ ko sell buñ ko tollale ci sell dëkk bu sell sell sell la waaska moo ci gën a sell fitratan ci bind dëkk la bu xam ne itam dañ ko fondement ala taqwan min allah a ah, dañ ko ci pour jaamu yàlla ak jàng diina ak liggéey loolu rek lañ ko sancee mm. waasow haa moo ci gën a yaatu mm. ruqaatan ci dénd mu nekk dëkk bu xam ne fi dal xaj na bi mm. lépp luy dundal dëkk mën na fi waa raw haa moo ci gën a naat nu jaatan ci forluwaay dëkk la boo xam ne ku bëgg a génn di jëriñu su fekkee demoo bu dikk gu fi rek xamal ne ki àggagul ci dëkk ba nga xam ne ci la njëriñ yi ëppee waa aqwamuha mooy ci gën a jub xiblatan ci xibla waaw sanha mooy ci gën a yaa dijlatan ci dex waa aktaruha mooy ci gën a bëri naaran ci yolnde wa naxlatan ak ci tàndarma waxtanuha mooy ci gën rafet tafsilan ci fasalay wa jumlatan wa jumlatan ak ci mbëfëstan bi isul baladi mooy buntu dëkk alxaram ba de bu ñu xormaal mm. maanaam busra bi ñu ko sancoon booba mm. moom ak ak alkaabatul musarrafa mm. dañoo dékkërle dañoo jàkkaarloo wa qabalatul baab tey njëxal buntu kaaba gi wal maqaam ak maqaamu ak maqaam suñu baay ibrahim wa ahad janaahi dunya kenn la ci ñaari mbaggi addina mm. ñu ne addina comme janaaw la mm. benn mbagg bi busra la mm. benn mbagg bi kóoba la wal misru te mooy dëkk al mu assas bare bu ñu fondement ala taqwa ci ragal yàlla ndax ñu ngi ko def pay ci jamono yi Seydina Omar ki nga xam ne moo ko sancoon mooy abbatum nu xasawaana ku ne xam ne ni mu mele woon baax na boobu waaw wal te mooy dëkk al mu assas bare bu ñu fondement mm. ala taqwa ci ragal yàlla mm. baax na ko ñu waajal waxtu mu ne wal ma wa wa ahadu janaaye janaahayi dunya kenn la ci ñaari mbaggi àddina mm. wal misru te mu lam yatadannas mos de tilime bi buyootin niiraani ci néegi safara mm. ay safara yuñ taal da leen jaamu bàyyi yàlla mm. loolu mos daa am ci Busra mm. dëkk la boo xam naka jëkk rek taw yi moo fi nekk wala tiifa wareesu fii ci dëkk bii bilaw saani ci xërëm sampaay xërëm dafa wër naan dañ koy jaamu bàyyi yàlla loolu mos daa am fii ci seen dëkk bii wala sujira sujoodeeful ala adimihi ci daram mooy ci suufam mm. li xayri rahman ñaar kudul borom mm. seen dëkk bi mosuñ fi kenn kenn kudul yàlla mm. ndax asaabu nabi ñoo ko sancoon bañ ko sancee ba léegi liggéey ak jaamu yàlla ka taxoon ñi sanc ko moo fee dox sul masahidi teew waay la al mashuuda yade yu ñu teewee barab la bu xam ne am na ay barkelookaay yu ràññeekoo koo ràññee mm. dul masahidi boroomi teewukaay la mm. almasuuda yi di teewee mooy barab bu xam ne am na ay barkelookaay yu ràññeekoo koo ràññee mm. wal masajidi tey boroomi jàkka almaqsuuda yi di ñu jublu mu am itam ay jàkka yoo xam ne ñu ngi dund ci mbooleem li tax ñuy tabax jàkka ñu ngi dund ci julli ci wirda ci jàng xam-xam mm. jàng leko mm. jàng alquran mm. ñu ngi dund daal ci li tax ñuy tabax jàkka wal maalimi ak mandargaale kaay almashhura yade yu ñu siiwee yu mat royu yu xam ne ku ci roy doo gëlam te ñépp xam ko bari na ci seen dëkk bi wal maqaabiri ak i bàmmeel mm. almasoore yére yu ñu nemmeeku mm. lu bari ci ay wàllu yu yàlla mm. ñoo fi tëdd ay bàmmeel yu ñuy siyaare yu bari ñoo fi am wal asaari ak i jeexit almahmuda yére yu ñu sant boo fi ñëwee ay liggéeyu nit ñu baax ngay gis yoo xam ne yépp ci ngay kontaan wal xitati ak i mbedd almahdooda yére yu ñu dayal bihi ci moom taltaqi lay dajeet alfulku gaal warikaabi ak i gawar mm. dëkk la boo xam ne xewali jéeri jéeg xewali ndox mi ñëpp a ci nekk mm. ñëpp a fi nekk mm. nit dafay war gaal teersi fi nit war otom walla war beneen waru waaye teersi nga gis ne dëkk bi nangu na gaal nangu na lu may gaal wal ak i jën wa ak i mbët boo soxlaa jën mën nga ko fee am rabu ndox la mm. boo soxlaa mbëtt mën nga ko fee am rabu jéeri la mm. a dëkk la bu xam ne xewale ndox mi mm. ak xewale jéeri ji yépp a ngi fi wal haadi ak aji màng gëlëm mooy kuy kondir gëlëm wal man laa ak kondir katu gaal ñépp mën nañ fee daje wal xaanis ak aji rëbbu wal fallaah ak baykat yépp mën nañoo daje ci dëkk bii gis nga ku baax a ku baax a baax wan naasib mooy kuy napp de sànni ci jën di génne ndox di génne jën war raami agaji sànni gunto mooy kuy rëbbee ci àll wasaare ak aji wër mooy kuy wëreelu di sàmm wasaabi ak aji feey wala wa ñaal na ko moom seen dëkk bi ayatul maddi mandarga mëdd hmm. tëbb alfaid buraaji bëbbu hmm. wal jusuri ak i ngiir wal wal ak i tefes hmm. ak tefes alxayit buraaji ngëcc bokk na ci kéemaani seen dëkk bii léeg ndox mi dafay héega héeg bu xëyee suba teel géej gi day héega héeg ba ca kaw bu ngoonee mu wàcc tefes boobu nga xam ne boo xëyee suba da ngay fekk mu fees dell ndox mm. bu ngoonee doo fekk dara mm. loolu ci kéemaani seen dëkk bi la mm. lii mooy dëkk bi léegi nag waa dëkk bi nuñ mel ñoom man fiha tuhabbul waa ma antum daal yéen bu yéen waa busra fa mi man yéen a ngi bokk ci ñi nga xam ne la yaxtalifu du wuute bi xasaisihim ci seeni jagale isnaani ñaar yéen may yàlla yi ngeen am doo fekk ñenn ñaari ni dafa werante ñépp a leen ko nangul wala yunkiruha du ko weddi soo tana anin borom mbañeel lu leen nit bañ bañit du ko dee weddi ku ko wax ñépp dañ xam ne du dëgg doona borom xel du ko dana nga wax waaw borom xel nanguwul borom xel du nangu mm. nit ñëpp toog muy wax loo xam ne du dëgg mm. moo tax am loo xam ne soo bañee mm. te boo ko wéetee ñëpp xam ne waxoo dëgg xel dana tax da nga ko nangu damawkum seen mboolo atmao raay yetin ñooy gën jaay sàmmi njaw njaboot di sultaani ñaal buur seen dëkk bi niñ mën a sàmmee teggi hini buur ñoom ñoo ko mënee te nag loolu la laaj ma sabba qawmun amirahum illa hurimu xayrahu baax a baax asultaanu sillullahi fi ardihi ku mel noonu ne yàlla xooy xolut mbiram dina ko baax a baax damaukum seen mbooloo mi ci ñuy sàmm li sultaanin ñaal buur waas ñoo gën a sant li saanin ci rafetal naka jekk ay sant kat ñoo fi nekk wasaahidukum seen ku dëddu àddina ki te mooy sayid alxasanul bisri yi awraxol xaliqati moo gën a sàmm ci binde sayid alxasanul bisri yi nga xam ne nañ moo gën ci taabihoona yi wala ci ñi gën la hmm. taalibe Ali ibn Abi Talibin bi hmm. kooku de kenn melut ni moom ci wara hmm. te fii lañ ko xamee de wasaahidukum seen ku dëddu àddina ki arwahul xaliqati moo gën a sàmm ci bindee bi waaxsanuhum te moo ci gën a rafet tariqatan ci yoon al xaqiqati ci dëgg-dëgg xam na lu mu daan jaamu yàlla loo xam ne Ali moo ko joxoon mu ngi teeree tasawuf bi naka na tariqa bu rafet la am hmm. waalimukum seen borom xam-xam bi hmm. te mooy ma ma Maamar ibnul Musanna hmm. Maamar ibnul Musanna seen ku baax a baax seen borom xam-xam bi alamatu kulli zaman mooy xamaa koonu bépp jamono borom xam-xam la bu xam ne jamonoom gannaawam ba bisu tey bii dañu dëkku ñuy sukkandiku ci moom wa hujjatu te mooy lay albaalixatu wudaaji jot fi kulli awanin ci bépp jamono te borom xam-xam la bu xam ne saa suñu ko tuddee ci mbir ñëpp nangu wa minkum ci yéen la tukkee man ki nga xam ne istambata ballalu na mm. elman nahwi xam-xamu nahu mm. wa wadaahu te mu tëral ko mm. ki génne xam-xamu nahu muy abul aswad adduli ci yéen la bokk fii ci busra gii la dëkk ni mu ko waxee noonu la demee nit la woon ku ràññee ràññeeku ci mën a wéy ba weesu àpp ak itam xereñ ba weesu àpp ak itam nag bëgg alal ba weesu àpp nag la waaw ñu ne bu ñuy lim ci la bokk bu ñuy lim olama yi ci la bokk hmm. bu ñuy lim buxala ci la bokk hmm. hmm. wax nañu ko de awa minkum ci yéen la tukkee man ki nga xam ne istambata ballulu hoon na en man naxwi xam-xamu naxwu wadaahu te mu tëral ko muy abul aswad adduuli ci ndigalal ali ibnu abi talibin ci la ko génnee woon mm. dafa amoon ko doon jàng alquran mm. ci suratu baraa mm. jàng ne wa adanun min allahi wa rasulihi ila nnaas yawma hajji lakbari anna allaha bari'un min almusrikina wa rasulihi loolu la jàng mooy yàlla nga xam le ne moom génn na ci yéefaram yi génn na ci yéefar yi génn na ci yonentam yi ki jàng loolu la wax mu yàq bu ñaaw a ñaaw boo xam ne damm mask moo ko waral te nag li ko def mooy alquran l'islam yaatu na ñi dul wax ñi ñi arab am nañ ci soxla xam nga anna allaha bariun min al musrikina wa mooy yàlla ak yonentam bi génn nañ ci yéefar yi xam nga loolu lañ bëgg a wax ci la Seydina Ali xalaate woon daal tëral xam-xam boo xam ne hmm. su ko nit ñi di jàng hmm. dana leen ñu ngeenal yàq baat ci waxi arab hmm. mu xoolu abul aswad addu ulli dal de ko sarse liggéey bi ne ko nag mbir yi ñett lañ saahir ak mudmar ak mubham baat yi itam ñett lañ lisim ak fenel ak xaraf lisim mooy luñ naan nangam lay firi fenel mooy luñ naan nangam a xew xaraf mooy lu xam dañ koo boole leneen door a wax li muy firi yooyu la ko waxoon yooyu la ko waxoon al al al kalimaatu salaasun ismun wa fi'lun wa harfun fal ismu ma dalla ala al musamma wal fi'lu ma dalla ala hadasin ba wax ba àgg def ci am loo dama ko fàtte bu dee waa ba ca kanam buntu inna la njëkk gis gis ni mu ànd ak mubtada xabar ñu nasal kii rafa kii góorgóor na ba gis in na gis an na gis lakin la gis ka an na muy juróom mu ñëwoon ko kilifa gi ne ko xaayida bii de laa gis mu xool ko ne ko des na mu dugal layta mooy xaayida bu njëkk a génn ci xam-xamu naxu moom moom moom moom moom ba mu bind ba mu bind ca lu nit jàng mm. waaw moom moom moom ba mu bind ca lu nit jàng mu mm. di doon xam-xam bu yaatoo yaatu mm. waaw ay muallafaat yu bari ci diggante ay mansuuraat ak ay mansuuraat ci diggante mustawraat ak muxtasaraat ay mawquf bi daal walladi ak ki nga xam ne ibtadaa fent na misaana siyaare natt way waxtaraawoo te mu fent ko hmm. ki génne helmul arut te mooy Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi hmm. moom itam ci yéen la bokk hmm. ci borom xam-xame xarnu bu ñaareel bi ci gàddaay gi la moom mooy sëriñu siiba woy gi ci naxwu siiba woy bi mu demee ci moom da jàng ba man naxwu dafa génne téeréem boobu ñaan alkitab bi mu ko génnee nag mel ni jàngkat yi téere si yóbbu yi bi moo leen ñu bëri ba bu yanu mu dem Màkka ñaan yàlla mu yenk bal ko xam-xam bu xam ne dana ci mën a wéyelee njàngaleem ba mu ñaanee bay wëññeeku ak fu ñuy waxaruut muy barab ci diggante Màkka ak Taïfa ci la ko sama borom hubbee mu gis mawaasinu sihri yi mu génne leen ñi fukk ak juróom mu tuddee leen ay buxóor ñu mujj da leen jàng xelmul xalili rahmatullahi alay sababuhu maylul wara li sibaway fa xaraja al imaamu yasa lil haram yasalu rabbal bayte min faydil karam fa zaadahu ilmal arudi fantasar baynal wara fa aqbalat lahul basar wa ma min faxrin benn ndam illa walakum ndare boog ñaal na fii ci moom al yeddu loxo attula bu daaji gudd xamul benn ndam buñ fee tudd lu dul rek yéen wal qitu ak bant maysar al mualla bay mualla arab yi buñ daan carte gélém suñu rayee gélém gi dañ koy saam ñaar fukki saam ak juróom-ñett ñaar fukki saam ak juróom-ñett lañ koy saam su ko defee ñu daal dagg fukki bant yoo xam ne juróom-ñaar yi ñooy banti gañe yi ñett yi ñooyu carte yi nee na buñ doxee nag ñu dajjal banti ferte hmm. ñoom ñooy lan la ñoom ñooy fay gëlëm gi hmm. te duñ am ci yàpp wi hmm. banti gañe yooyu bi ci gën a néew daraja benn saam lay am ci gëlëm gi mooy fas suuf bi ko topp xam ne moo ko doole ñaari saam lay am mooy raqiib bi leen ëpp doole ñoom ñaar xam ñetti saam déedéet mooy taw am taw am mooy bu ñaareel bi mm. mooy raqiib mm. bi am ñeenti saam mm. mooy naafis bi ci topp am juróomi saam mooy xils bi ci topp am juróom benni saam mooy musbil bi ci gën a koy juróom-ñaari saam lay am mooy alqitul mualla gis nga ko baax baax moo ci kawe kawe ñetti yu perte yi mooy maneex ak waxdu ak safiya yooyu ñu ko dajal mm. ñooy fay gërëm gi te du ñu am si yàpp yi mm. noonu daan demee mais mm. yéen lépp rek yàlla moo leen seet di jiitu ca ah lépp rek yàlla moo leen seet di jiitu ca loolu rek may wax bi wala siitoon amul benn amul benn bayre benn turu rafet illa wa antum dara yéen àqu yéen a gën a xëy bii ci moom waaw laa te yéen a ci gën a xëy xamul lu ñuy taggee nit wala lu ñuy nawee nit lu ne rek yen yéen a gën a xeew a tagg yooyele wala nawel yooyele hmm. summa innakum topp yéen aktaru ahli misrin hmm. yéen a gëbër yéen a gën a bëri ci ñooñ dëkk mu hmm. assinina ci way nodd dëkk bi nim ràññee ci bëri noddkat dëkk bi rekk la wa a ci gën a rafet xaw fi nusuki ci jaamu xawaa nii na ci ay yoon te itam seen jaamu ni ngeen ko tegee ci yoon mm. yéen rekk la mm. wa bikum ci yéen uxtu di yàlla royeef mm. fi taarifi ci wane melow harafa taxaw harafa ci yéen lañ royee taxaw harafa dafa am ñenn ci nit ñi bisu bu jotee dañuy génn dem ci yenn barab yi dafa toroxlu dañaan yàlla ndeg ni doog waa harafa dafa am ñu koy def dajee ci dajee ci jàkka yi bisu arafa bu jotee dañuy génn dem ci jàkka yi dajee fa di toroxlu di ñaan yàlla ndig doroy ci waa arafa seen melokaan wa mu lool busra gii lañ ko njëkk a defee dégg nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo ko fa njëkk a def xaw la ñu agsi ci suñu réew am nañu koy def nag bu nekk suba la julli gi teel yow mu arafa du dem ci jàkka yi di ko indi def ay dogi ñaan mm. ak di toroxloo yu mel noonu mm. woori ba ciir la xameesee mm. a tasiiru xëdd ci sari ci weer a sarifi wuraaji tedd seen weer wu koor bu jotee da xamal nit ñi ne waxtu xëdd jot na donte layi biir jullit ñi ñëpp la yéena ko njëkk def de ci yéen lañ koo walakum ñeexal na leen hmm. ida xarrat bu dalee hmm. almadajion tëdduwaay hmm. wahajaa te nelaw alhajion aji nelaw ñeexal na leen taskaarun siikar bari siikar boo xam ne yoo xidu dana muhee an naima aji nelaw wayu nisu te dana mu wéttal al wéttale alqaayima aji naafila dëkk la boo xam ne amul benn heure boo xam ne doo fee dégg kuy wax lu baax waaw hmm. amul benn heure boo xam ne doo fee dégg kuy wax lu baax seen hmm. bu baax baax hmm. mu doon lu xam ne mën naa wéetale kay jaamu boroomam doon lu xam ne mën naa yee kasaaganoon kasaaganoon bay nelaw lii de ci masaye ci seeni may la wala kum ñeexal na leen isa xarat bu dalee almadaji ma tëdduwaay yi wahaja te nelaw alhaaji aji nelaw ñaal na leen taskaarun fàttaleku yoo xiigu boog dana muhee annaa ima aji nelaw wa yoo nis te dana wéttale alqaayima aji taxaw wam tasama mosul muuñ saxru fajrin reefu waayu fajar wala ba saxa mosul penk nuuru hoo leeram fii bardin ci sedd wala harrin du caageen tàngoor illaa wali taadinikum dara ñaan na seen nodd bil asaari ci njël dawi riit moo xam ne ka dawi riihi mu ngi mel riitam ngelaw li fil bihaari ci géej saa su fajar xare foo toll ay baati nodd ngay dégg seen dëkk bi ni la diina wa bi daa ci lii sadaa la wóoral an kum ci an naqalu toxal ñi bi ñëwul lii lañ fee dégg waax bara te lii la xamle woon annabi yonent bi alayhi salaam min qablu ca te itam seen dëkk bi lii la ci yonent bi mosoon wax seen barab bi wa bayana bira loon na ne ana dawiyakum naka riitam seen noddu bila faari ci ka dawi nax li mu ngi mel itam yëmbu fil xifaari ci xàll fa sarafan waana mag tedd nga lëkkum ñaxal leen bi bisaratil Mustafa ci Mustafa wa waaxan dana mu héemu li misrikum ñaa seen dëkk bi wayin kaana doonte nekk na xat xafaati rakku wala mu yokk xatte desatul minu ila sofaan dara pegg seen dëkk bi de li fi ak li fi newoon boo ko leeralee hmm. dafa mel ni téere boo xam ne feggal gaa fa def hmm. waaye li fi def rek doy na himu hmm. loolu ma def li fi def doy na himu gis bu baax a baax ah, wax na ci dëkk wax na ci waa dëkk bi moom nag xam na dëkk bi xam na waa li wax ci dëkk bi xam nañ ne dëgg la li wax ci waa dëkk bi waa dëkk bi xam ne dëgg la waaye nag moom xam kim doon te bu waxul kim doon ñun duñu ko xam moo tax mu noppee tuuti dana waxaat summa innahu saqmu xasana denc na lisaanahu làmmiñam waxatama te mu naskal bayaanahu biralam xataa hudija ba sànneef ko bila saari ci gisu kuri fate ay yibalees ko bile xasaari ci noppi gi wusi ma te mandargaalees ko bile xisaari ci gàttañ gi dama ne fi la noppee fi la noppee dinañ ko baax a baax ba ñëpp xoolaat ko ndax yéen na wax ci dëkk bi fekkoon na ñu dëkk ci dëkk bi xam ko li wax ci waa dëkk bi fekkoon na ñu dëkk ci waa ñu dëkk ci waa dëkk bi xam ko kon waxam si ñun liñ cee xamee rek mooy moom xam na dëkk bi mm. xam na waa dëkk bi mm. waaye ñun xamuñ kim mm. la koo xamul kim daal nan ngay jëflanteeg moom moo tax bu noppee fii daal ah gars ñi dañ gisagum ni wax koy xool waaye dana waxaat la waxaat dañ ko jàng incha man la léegi dafa wax ne dafa wax ni misra demee bañ ne noonu la mm. ak ni mu xamee waa waa misra mm. waaye moom xamuñu ko mm. su doppee fii kon itam du tax xam gan gi kan la mu noppi ba ñuy ko bëgg a sikkal fatana fata mu nokkat dana pusa man nokkata koo xam ne kii da xomatees na ko li xawadin jëm ci fayu aw dabasat wala sampona bii ci moom barasinu asadin ay wii gaynde mu nokkat nokkat goo xam ne daal nokkat ak kuy seenu deera waaw nit koo xam ne dafa rey ne ñii ko xomat dafa rey wala koo xam ne gaynde teg na ko wee am war a xotti mu dee nokkatam gi daal comme nokkat googu ah fatana fata mu nokkat dana man nokkat ak koo xam ne. Hmm. xëy na na ko li xawatin jëm ci fayu. Hmm. aw rabasat wala sampo na bii ci moom barasinu asadin wi gaynde. Hmm. su ma qaal topp mu antum daal yéen. yaa ahlal basra yéen ñooñ busra. ma minkum nekkul ci yéen. illa al alamu ndare sang al maruf bare bu ñu waman ak koo xam ne la ko ñaal na ko almaarifatu xam wal maaruf ak njëkk hmm. yéen waa Busra yéen ñëpp ay sang ngeen koo ci rek hmm. ku am xam-xam kuy def lu baax hmm. waman te ak ku xam ne la ko ñaal na ko almaarifatu xam wal maaruf ak njëkk sallaw daal man talqa minhum taqul laqaytu sayyidahum aw nit lañ ñoo xam ne koo ca daje rek mm. danga foog ne mooy kilifa ga mm. ndax nañ doxee ni daraja mm. aw man talqa minhum taqul laqaytu sayyidahum mislu nujumi lati yasri bi absari yéen waa Busra noonu ngeen mel daje ci ñoom rek danga foog ne mooy kilifa ga ndax ñoom ñëpp ni ñu doonee daraja wa ma minkum nekkul ci yéen illa alamu ndare sang almaruf bare bu waman ak ku xam ne la woo ñaal na ko almarifatu xammee wal maaruf ak njëkk hmm. wa amma ana daal man nag buy man hmm. fa man arafa nii ku ma xam hmm. fa ana man saaka may kooka léegi nag man mii di wax ak yéen ku ci xam ne moom xamoon na ma démb kam xamoon démb mooy kii wa sarul maarifi te yéen ci xamaale yi man ku man mooy ku xam ne aadaaka lor na mu la xamaale nag buñ koy bëgg jëriñante moo tax waaye lorante taxul nii wax doonte lorante dina ci amee nag wa ma darrani illa alladina araftuhum jasallahu xayran kulla man lastu arifu waaw mu ma xam rek ñoo ma lor de ku ma xamul maa ngi lay ñaanal de waaw te nag waaw waaw ku gëm <laughs> ku ko gëm wax aw ma darrani illa alladina araftuhum jazallahu xayran kulla man lastu arifu wa ama ana daal man fa man arafani ku ma xam fa ana man zaaka may kooka wa sarul maarifi te ci xamaale yi man may ko xam ne adaka lor na mu la wa man lam yusbit ku saxalul na yarfati sama xam fa sa asduqoo danaa ko dëggala sifati sama melo ku ma ci xamul nag danaa ko wax maay kan mm. te ki ma doon rek laa koy wax mm. ana man alladi maay ki nga xam ne mm. an jada joti na najat waa ramate mu joti taam walil buluuxi kaam a jaafarun ibila man maay koo xam ne wër na fu ne ci réew yi mm. dem na najat dem na tahama mm. waaye ama waaye mana jote na yaman mm. wa ama jote na saam sallaaw dem na yaman dem na saam waa sara dox na ci xàll bi waa sara dox na ci géej gi itam waa lajara ñaan na dox na guddi waa sara njëlu na itam dox na bëccëg man maay ki nga xam ne daal pour nga xam ne comme ni Mutanabbi waxoon rek alxaylu wal laylu mm. wal baydaau taarifuni wal harbu wal darbu mm. wal qirtaas wal qalamu mm. daanaka kooku laa rek daanaka kooku laa ana man alladi maay ki nga xam ne an jada joti na na jat waa xamate mu joti taama waaye man mu joti yaman waas ama mu joti saam mm. waas xara mu dox ci àll bi mm. waas xara mu dox ci géej gi mm. waas la jëtte mu rañaan mooy mu dox guddi waas xara te bu njëlu mooy mu dox bëccëg nasatu sosoonaa bi saruuja ci dëkk bu ñuy wax saruuj maa ngi gane àddina fu ñu naan saruuj mooy dëkk bi nga xam ne fa laa daan takkee gàllaji gune mooy dëkk bi nga xam ne moom la suma daraja ka laalanteeg suufu mm. mel ni bilaadun biha niifat alayya tamaimi mm. wa awwalu ardin massa jildi turabuha sala mm. suruj mooma ko doxal wara baytu yaru naa ala suruji ci kaw teg yi waaye naka jekka nag léegi nga wàcce ci ra yaru summa walaytu topp ma tabbi al madayiqa xat-xat yi xam naa ay jaar-jaar yu xam ne jaar-jaar yu daw yaram la wa fatahtu hubbina al maxaaliqa tëj-tëj yi xam naa ay ngóore itam yu xam ne sottal naa ko jëfe nañu bari wa shahidtu fekke naa al maarika xare yi yàgg naa fekke xare yi itam wala yantu nooyal naa hmm. alharayika jagañ yi hmm. mooy bu jagañ di sax mooy harika hmm. mooy yàgg naa tàggat gëlëm di ko war waxtattu yàgg naa xomat wata waxtattu xomat naa asawaabi sa wéy faraw yi waa xamtu toroxal naa almaati sa bakkan yi mooy def lu neexul nit te mënu ci dara waa daf tu ruyal naa aljawaami da wéy way yi mooy ma topp gom sotti mm. waa maxtu yeyal naa aljalaami daf mm. man may ki ne lu ne dugg naa ca mm. ak dem naa fa sa loo laaj leen an nii ci man almasariqa fenku wal maxaariba ak soo waay leen ma ci masariqul ardi wa maxaaribuha wal manaafi ma ngeen laaj ma ndëfañ yi mooy tànki fas yi hmm. pour ngeen xam ne man jàmbaare xare dëgg laa hmm. wal xawaari ba ak jogare yi hmm. mooy gannaaw yi gëlëm yi pour ngeen xam ne man liggéeykat dëgg laa ku ñeme coono la wal mahafil ak daje yi nga laaj may ngeen laaj tamit ci daje yi xam-xam yi ak daje yi teraanga yi wal jahafil ak xare yi ngeen laaj tamit ci xare yi wal xabail ak ci giir ngeen laaj ma giir yi itam gis nga ko baax a baax mm. wal qabaayil ngeen laajte ma ci giir mm. wal xanaabil ngeen laaj ma ci kuréeli fas yi xanaabil mm. mooy mbooloo fas mu toll ci fanweer ak juróom fanweer ak yooyu waxtoo di wooni na ngeen ma sàkko leerlu min naqalatil axbaar ci way toxale xabar yi warwaatil asmaar ak way solohi goonaari ñi nga xam ne bari na luñ ci ayamul arab bari boromi xam-xam yuñ jaxasoo hmm. laajte leen ma ci ñooñu hmm. kenn kenn mu fulewul ku ma ci doon hmm. wudaati rugbaan ak way mangi gawar yi ngeen laaj ma ci tukkikat yi wudaatil kuhaan ak way ñawi gisaanekat yi ngeen laaj ma itam xamkat yi ñuy laaj ay secret gis sa loo laaj leen an nii ci man almasariqa penku waay wal maghariba ak sow waay wal manasima ak ndëfañ yi wal xawaariba ak jogare yi wal mahafila ak mboolo wal jahafila ak xare wal qabaila ak giri wal xanaabila ak mboolo yi fas yi wa toxdihooni te ngeen leerlu ma min naqalatil axbaar tukkee ci way toxale xabaari solo yi waruwaatil asmaar ak way solo yi ngonaar yi waxudaatil rugbaan ak way bangi gawar yi waxudaatil kubaan ak way ñawi gisanikani li tax moo ngir na ngeen xam ne kam fëjjin bëri na yoon mm. salaktu soobu naa ko fëjju mooy yoon wu jaar ci kaw doj mm. ni ko jamoolee fijaay mm. pour ngeen xam ne man fu bëri laa dem wa hijaabin bëri na kiidaay hataktu bu xotti naa ko nga xam ne ku bëri yëfi ngóora la lutta ñu bëri ma sotal ko wa mahlikatin bëri na halaku ixtahamtu bu bëtt naa ko nga xam ne itam man nit ak walanteeru kat laa mm. dama gëm imal mulku wa mm. imal mulku su ma xasee ba engagé mbir daal mm. na sotti rek ba ma def ca rek wa malhamatin ak xare alhamdu boobu ràbb naa ko te itam nga laajte ci xare yi da nga xam ne yàgg naa da mooy jokkale naa ko wa kam albabin bëri na ay xel xadaat yooyu huruj naa leen yàgg naa nax nit de yóbbu yéefam wa bidaxeen bëri na yu ñu sos ay bidaxa ibtidance yooyu fent naa leen yàgg ay ay ay féminaxe ne man maa koy fabriqué sama ba pare wa furasin bëri na ay mang ixtilas yooyu fis naa leen yooyu yooyu loo xam ne occasion la rek ma def ci la ma bëgg wa din bëri na ay gaynde iftarastu yooyu fàdd naa leen koo xam ne góor dëgg la ma daane loolu bëri na bu mu xamee wa kam muhalliqin bëri na aji dee ci jaww ji xaadartuhoo bàyyi naa ko la xam muy kem lu ñu sànni ku ñëpp doon hiim de ko naw ñu dajeeg man ma jaarale ko fu tax kenn du ko tegati fenn ah loolu bëri di wa kaamilin bëri na aji nëbbu istaxrajtuhoo génne naa ko bi ruqaa ci mocc loo xam ne lu ruq ruq ruq la ma def ba wane ko bari la naa ko di mm. waxaajarin bëri na mu toj mm. saxatu das naa ko mm. xattan sadaa ko mu toj wastan battu mu ballalu sulalu ndoxam mu neex bil xodaan ci buri ngir koo xam ne ku nay la ku kenn man de jëriñoo ma jaar ko barab ba mujj rek loxo bi toj mu jox ma li ma bëgg loolu bëri na bu de walakin li fi nekk waaye lii lépp nag farata wéy na maa farata li wéy li yëpp ay jaar jaar la yoo xam ne am naa ko muy jaar jaar yu jeex te mooy mbiru àddina farata wéy maa li nga xam ne farata wéy na wal xusnu te bànqaas bi ratibun aji tooy la wal fawdu walla gob bi xirbibun aji ñuul la dafa mel comme baaxee mooy li lépp nag ba ma koy ak ndaw la àndatoon ah jëmmi ndaw ak kawar ak ndaw bu burdu sabawi bu bam ndaw xasibun aji xeefe la fa amal ana daal léegi nag hmm. waqad tasanna temirom sagar na hmm. al adimu der bi hmm. wa taawada te dëng al qawimu taxawaay ba daa ji wa sanaara te leer al laylu kawar guddi mooy kawar gi meloon guddi al bahimu guraaji lëndam tey nag gis nga di sagar taxawaay bi dëng na maa ngi xog kawar gaa ngi weex tàll kattan la waree wala la waraloon man loola ak bayre bu waraloon man loola ak taar bu waraloon man loola yëpp jeex wala yesa desatu dara illa na tam dara réccu inna fa abu jëri léegi na réccu rek moo des watar xemal xurati ak daa qarqar watar xemal qarti mm. ak daa qarqar alladi bi nga xam ne ittasan yaatu mm. kon ñu jàng loolu a ñu waajal waxtu léegi nag ak ndaw la ànda soon ndaw ga jeex na mm. du ma ca dellooti mukk Hmm. non bi bu doon gën a doom ak lay def hmm. <coughs> kon tuub rek moo ci def hmm. bu kuntu nekkoon naa ruwiitu de sola leef ma minal axbaari ci hadis al musnada yële musnad wal asaari ak i jeexi al muxtamada yële yi sukkandeku daan nañ ma nettalil ay nettali yoo xam ne yu dëgër la yoo xam ne ku doon hadis day ah, na ay hadis musnad lañ muy asar yoo xam ne sukkandikoo kaay la mais an leen yéen waa Busra minallahi ci yàlla taala fi kulli yawmin ci bépp bis nadratan xool te ci daa Busra duñ busat am na ab xool buñ jagoo ci yàlla mooy am na leen yàlla cëralee ci yërmandeem mm. ah loolu seen cër la mooy mm. seen cëru bopp mm. waa na selaaxal naa si ak naka ngànnaay nit ñi ku lihim képp ci ñoom alhadiidu mooy weñ gu ñuul wa silaahakum seen ngànnaay alafiyatu mooy ay ñaan wa tawhiid ak pas wéeru sama borom dinaa wane guus rek kenn mosu leen manal dara ndax ku leen mos a fexeel bu ñaanee yàlla rek sa pexe du sotti kon ñoom seen gànnaay la woon waaye du doon ay jaase gi buntu loolu leen xam xeraat na nga mm. la meloon Hajjaj ibnu Yusuf sonnaloon na la waaye la ko ci dimbale woon daf leen naxoon lekk loo leen lu lewul rek mm. waaw loolu loolu moo ko ci dimbale woon rek mm. a daf leen saxeeroon ba lekk loo leen lu lewul rek mm. loolu loolu moo ko dimbale woon ci ñoom waaye bu ko doon du sotti waaw gis naa ko ci màdd xam amul ci màdd xam daf leen saxeel ba lekk loo leen lu lewul rek waaye bu ko doon du leen mën a tax waa na silahan naa caag naga nga nayi nit ñi kullihim képp ci ñoom alhadiidu mooy weñ gu ñuul wasilaahakum seen ngànnaay yéen alaadiyatu mooy ay ñaan wa tawhid ak fas wéeru son borom a xafartukum ma jublu leen lii laa dégg ci busra loolu moo tax ma ñëwal leen kon bii mbiroom dana songong loo xanaa waxe leen gëlëm yi wax naa ay gëlëm ba sonnal waa bii te danaa leem almarahila marhala yi diggante yi. Mm. dagg naa ay diggante yu sori. Mm. asalaamaaleykum dama taxaw hadal maqaam ci bi la taxawaay. Mm. aleykum ci yéen. baax ci yéen. yaakaar laa am ci ay coono. dagg ay diggante. ba dikk bi. wala man na den ñaax nag. lii dama ñaal aleykum ci yéen. is ngir maa saayatu doxuma illa fi haajati ndare ci sama aajo mm. wala taayatu som sonnuma itam mm. illa di raxati ndare ngir sama noflay eh. baxoo gama baxoo bu sori mm. coono yi ma toggoo ci yoon wi diggante yi ma dagg yooyu yëpp dul ne war naa leen ko ñaaxee ndax dul yéen yéen a ma fi tax a ñëw sama bopp moo fi tax eh. kenn du moo fi tax a ñëw man na den ñaax lii dama ñaax aleykum ci yéen li ma baaxoo bu du lu xam ne dama leen ci war a ñaaxee nen na di leen wan fonk naa leen du du loolu is ngir maa saaytu doxuma illa fi haajati ndara ci sama aajo rek wala saaytu sonnuma illa li raaxati ndara ngir sama naf lay ndax dëgg-dëgg sama bopp rek moo ma tax a wala su deen man nag abri may sàkku afiyatakum seeni may hmm. du nag xalale àddina la soxla hmm. ba tax ma ñëw ci yéen hmm. bal li fi nekk askan danaa sàkku afiyatakum seeni ñaan waaye ngeen tinu ma nag ci yàlla ndeg may gi ma leen déggal loolu muy li ma fi tax a ñëw wala asalukum du ma leen laaj amwaalekum laaju ma leen seeni alal bal li fi nekk astansilu naa sa ko wàcce su aleykum seen laaj seen ñaan dama ngeen ñaanal ma yàlla fadama woon na ngeen ñaanal allah yàlla taala kowe na mu bi tawfiqi ci sama dëppale lin ma tabi ci ngeen ñaanal ma yàlla ma tawal ma sansa ma tuub wala daal lin ma abi delluwaay bi ma mën a waajal itam sama ëllëg hmm. fa innahu naka moom yàlla daf yoo darajaat ak yëkkateeku daraja la hmm. mujibu daawaat aji nangu ñaan la hmm. moom yàlla mooy borom daraja ju kowe yi te itam mooy nangu katam ñaan moom alladi mooy ki nga xam ne yaqbalu dana mu nangu atawbata tuubane baadi yi ci jaamam mooy ki nga xam ne bu ay jaamam ci góor nangu leen waaye am fu wate danay par an say aati ci ñaaw téef su ma ne lii la wax naa sada sab mu sadd moom waa ji ne astaghfirullaha min dunubin abrattu fihinna wa atadaytu tanquttu bahra dalali jahla wa ruxtu fil hayyi wa atadaytu wa kam atatu lhawa firaran waxtaltu waxtaltu waxtaltu waxtaltu waxtaraytu وكم خلعت العذاب غربا كالمعاصي وما ونيت وكم تناهيت في التخطي كالخطايا وما انتهيت وليتني كنت قبل هذا نجا ولم أجن ما جنيت والموت للمجرمين خير من المتاع التي سعيت يا رب عفوا فأنت أهل العفو عني وإن عصيت mu ne astaghfiru maa ngi jégalu allah yàlla min zunubin ci bàkkaar yoo xam ne afrattu jéggi naa dayoo fii him na ci ñoom waxta day di sama jàggati bàkkaar yi ma def ci sori ji lool moom lay ñaan yàlla mu jéggal moom kam xuttu bari na bu ma puusee ba dalaali géej jahlan ngir ndox ngir def loo xam ne moo xam-xam waaju la gërëm def wax loo xam ne moo xam-xam waaju la gërëm wax xelaat loo xam ne njub waaju la gërëm xelaat bari danaa ko def ay xelaat yi njubadi ay wax yi njubadi ay jëf yi njubadi ndege na réer fil xay yi ci mooy ci ñoradi waxta day tut te ma xëy suma dund yëpp naa ko ci ay neen na ci ay neen laa daan nekk xutu wan war a waaxa suba ngoon wa kam ataatu bari na bu ma toppee alhawa bànneexu bakkan ixtiraaram ngir naxu lii moo neex ci sama bakkan rek ma nekk ja rek ak lum jaadu hadi jaadu hadi loolu bari na naa ko waxtaltu may daagu haale de doxee doxi de yëg sama bopp waxtaltu ma yongaan may lor ay nit waxtaraytu may fent bari lu ma fent iftira may fen woo xam ne borom moo ko tey ci baama xawaa def naa ko ci jikko yi def ko ci jëf yi def ko ci wax yi xam nga affaire ixtiyaar jikko la waxtaltu bu jàkk waxtaan su xam nga jëf la waxtaray su xam nga wax la wa kam xalaatu bari na bu ma summee alxinsaara ay buum mooy tarka buum yooyu ñuy téye ni ñuy téye laxab buumu laxab yooyu tarka araka dan ngir gaaw ilal maasi jëm ci moy wala ban birom ma daa ji gaaw ilal maasi jëm ci moy xam ne duni loolu waroon may fekk ma mm. fittarle ko mel ni koo xam ne dara dara waru koo fekk mm. dem ci mooy yàlla mm. loolu bëri na ma ko defee wamaa wanay to te doxaa di ko may te am ca lool wakam tanaa haytu bëri na bu ma jotee dayo fi taxatti ci jeexowu yal xataaya jëm ci bàkkaat yi waman tahaytu te jajjuuma loolu lu ma rek taxa jajju falaytani yàlla teewoon man kuntu nekk qabla hada ci njëkk ni fiyan de ñu mat wala mu aj ne te du ma wala du ma tooñ maa li nga ne jamee tooñ naa ko suma gun suma dund bi li ma ci yàq deewoon man kuntu ma nekkoon qabla hada ci njëkk lii ni ñu fàtte walam aj ni du ma witt du ma kotti wala du ma tooñ maa li nga xam ne du ma tooñ dara fal mawtu dee xayrul moo gën lil mujrimina ñaar way jàng minal masaaye ci jëf allati jëf yi nga xam ne saxee tu jëf naa ko li ma def loolu borom def ñàkkoon a dund te mucc jëf moo gën fal mawtu dee lil mujrimina ñaar way jeng yi xayrun moo gën na saxee fii jëf allati yi nga xam ne saxee su jëf naa ko ndax jëf la yoo xam ne du jur dara loo mooy toroxaande rek te innal maniyata inda zulli xindiiru yaa rabbi eyow borom bi afwan yàlla na nga jéggal ak jéggal maa ngi lay ñaan nga jéggal fa anta yow ahlun aji xeyoo nga di laa koy jéggale yow xeyoo eh, nga jéggale ndax sa melo yu mbaax yi yaa ko jéggal a nii mm. mm. mm. ci man wéy naa saytu ak ak lu ma mooy mooy teewul rek yow xeyoo nga jéggale saxirata laa kabirata isa waajahaka fadluhu wala saxirata isa qabalaka adluhu sama borom bu jëflante yow ci ngënee la doo am bakkaat boo ma li ko def mooy lu mbir diis diis su ko neexee mu woyof waaw mooy la kabirata isa wajahaka fadluhu waaye su bëgg a jëfante yow ci fayu hin nag doo am bakkaat bu ndaw ndax bu fayoo rek mu métti mooy wala saxirata isa xaabalaka abluhu gannaaw noonu la demee lu mbir diis diis oyofal ko du dara ci yow te ñaan la nga oyofal ñu rek nga oyofalal ñu rek dégg nga mm. ah laa kabirata iza waajaaka fadluhu mm. wala saxirata iza qaabalaka adluhu mm. ah macha allah wax na ko moom ji lii la wax qaala wax na raawi gis nga ni mu waxee fi mu jaar ak ni mu xamee busra ak ñooñ busra yëpp mu leeral ko ni mu ku ko nu nu mu ku ko ñaanal tax nag ñëpp sawar ci ñaanal qaala wax na raawi aji solo ji ne fa tafiqat dal de xarab al jamaatu mbooloo mi tumidduhoo di ko jox bi duhaa ci ñaan di ko tëbb ay ñaan mbooloo mi di ko ñaanal wa wette moom yu qallibu mu ngi jàllar bi wajhahu xar kanamam fi samaayi ci asamaan dañ ko ñaanal yépp na mu ngi teen ci kaw xañ na foo ko boole dékk ay loxoom dégg nga xam nga dafa bokk ci sunna booy ñaan nga dékk say loxo selung waax waax asamaan mooy qiblatu duhaa wa fi samaayi risqukum wa ma tuwaadun loolu lañ jàng ci alquran hmm. loolu moo tax asamaan muy xibla ñaan booy ñaan nag hmm. boo yëkkatee sa loxo mu jëm kaw hmm. yëkkati ñaari loxo gi dafay wane ne xol bi ak ruuhu bi yëpp bokk nañ jëm ci yàlla loolu lay signalé jublu ci yàlla bi qalbin wa qalbin loolu la dékk gi ñaari loxo de tekki gis nga baax baax soo ñaanee li ngay ñaan ba àggal raay gi nga ko raay ci bopp mm. bopp mooy mooy cër bi tax jëmm ak ruuxu mën a ànd mm. waaw waaye bu newul ci jëmm mm. ruuxu du ca mën a nekk waaw waaw comme da ngaa jublu woon ci yàlla ci sa jëmm ak sa ruuxu soo paree da nga koo raay bi nga xam ne moo tax jëmm ak ruuxu mën a ànd moo leen boole loolu moo tax nga juboo tëmlee bara nga ñaan nga raay ko ci sa bopp dégg nga waaw mos naa koo gis ci wala ma wax ne dafa bokk ci sunna booy ñaan nga dékk sa loxo yaakaar naa dana ko wax loolu mos naa ko faa gis de waaw mos naa ko faa gis de madam woowa tam yuqallibu mu ngay jàllar bi wajhahu xar kanamam fi samaa'i ci kaw ilaa an damaat ba rongoñu mm. mm. aj faanu ay mbati bëtam mm. kenn na ba mujj jooy wa badaa te wa badaa mm-hmm. wa badaa te feeñ la jafaanu woo loxam mm-hmm. ba ni muy rog mm-hmm. ni muy rëg-rëgee fasaaha mu daal de xaacu ne allahu akbar baanat bir na amaaratul istijaabati mandargaam nangu ñaan wan jaabat te fu ñeeku na mooy dagg na xisaawatul istiraabi muuraayu xisaawatul istiraabati muuraayu muuraayu sikk mu ne ñaan gi nangu na mm. kenn mu ci dégg nekk mm. fa jisiitum yàlla na fayees leen mm. yaa alal busayrati yéen ñooñ busra jazaa man faye koo xam ne xadaa gindi na mu meel xayrati tukkee jingal man de lu yàlla dafay jublekat yal na leen ko fay falam yabqa desul minal xawmi ci nit ñi illa man dare koo xam ne surra bégaleef na ko li suróor yi ngir mbégam Abu Zayd mu ne ñépp kontaan ah ndax li ma doon ñaanal jëriñu naa ci dafa dalal xelam ki lay ñaanal te itam dafay tax mu gën a hóolu lam la doon ñaanalee lam la doon ñaanal dana tax mu gën koy hóolu moom loolu moo tax mu ne ñépp kontaan ndax kontaan gi mu kontaan wala baxate mu xont hmm. la woo ñaar bu may sóor yi ci kenn ku nekk ah jox na ko kenn lam ko mën a jox hmm. fa qabila mu nangu afwa birrihim aji yomb seen njëkk su ko defee moom ñëwuloon pour laaj leen xalal waxoon na leen ko waaye ñoom ñooy def kati lu baax rek lii ñu def ko ci seen tàlli xol mu doon lu xam ne ñoom mën nañ ko tiraanga rek lañ ci jublu mu jëlal leen ko mm. ah ndax itam na nit boo ko bëggee mm. il faut nga bëgg njëriñam mm. dégg waaw waa qabala mu daal di jublu yaxriqu di lap mooy di bëril wax fii sugrihim ci sant leen mu sant leen lool summan hadara topp mu wàcc nag mina fi tukkee ca doj wam yéegoon ya umu mbirom dana mu jublu sotti al basara tefes basara wàccee ca doj wa mm-hmm. jëmale tefes ba mm-hmm. xañ na warte dem la boobu waata xabtu ko mm-hmm. ma topp ko muy huutu ante moom fu mu dëgg ma dëgg fa rek ila haytu taxaalay naa ba ñu fiya ma topp ci ko maa xam fi ne maa moom rekk la waa min te ñu wóolu atta jeesu sa raj ba taxa suusa ak wuta yëg mm. xale naa ci ñun mm. nga xam ne kenn ku ñuy yeeru mm. wala benn agent secret bu ñuy weri xëllëg amul qultu mu wax la wañaal ko ne ko laqad agrabta yow de dikkee nga tumaranke fi haadihi naw ba ci gile moome ma ne ko ah yow de sa tey bokk rek sa démb bu ñaanal leen waaye soxla bu ma seen alal ko xam ne pexeem jëlee dara ci nit ñi rek nga daal ah laqad axrajta dikki nga tumuraanke fi haadihi nawbati ci gile moom fama ana laal nag rek ñu ko mooy sa texe fi tawbati ci tuub ana lan ngay sa xalaat ci tuub na comme xam nga doo soo gone xam nga lan doon def amul njëriñ waxal ko sa bopp luy sa xalaat ci tuub na fa qaala mu ne ma bokk si maa ngi giñ bi àllaamin xafiyaati ci aja xam yu nëbbu yi wa xafaaril xatiyaati daaj tey jéggale akoon bakkaar yi may la giñal ci yàlla li ma la wax sama diggante yàlla lay def bokk si ma maa ngi giñ bi àllamin xafiyaati yàlla mi daaj a xam yu nëbb yi wa xafaaril xatiyaati tey jéggale akoon bakkaar yi ne inna soo ni sama mbir la ma jàppoon lu xewi wa inna duaa qawmika naka ñaani sa bokk yi mm. la mu jàmm mu ne ko mbir mi kéemaan la mm. waaye sa gars yi daal mm. xam naa daal képp ku leen di ñaan loo doo sa di am nañ di jàmm de Arif ne ko qul fi ma ne ko zidni dolli ma ifaahan ci leer wóor sadaka yàlla dolli la allahu yàlla salaahan xirin ma ne ko dit gën maa ko bil waxtaan yi mu gën a yàq te dañuy dolli ma isfahan ci wóoral mm. mooy ci leeral mm. saa dëkk yàlla na dolli la allah yàlla falaaxan yow mm. faqaal mu ne ma wa abi ka giñ naa ci sabay barki sabay laa wax de laqad kuntu taxaw an naa fihim ci ñoom maqaaman murid taxawaay aji dikkee sikk alxaadee ku daal di huruj ñaan lu gaag wax kamadu yëpp da mm-hmm. njëlbeen nga moom bëgg a naxe la woon su man xalaktu topp ma jàllabe ko minum ci ñoom da mm-hmm. xalbil mu ne bi ci xolab aji tuub alxaasin ku daal di tooxlu waaye ba ma fay bàyyee ko moom mm-hmm. suma xol bi yàlla rek moo ma fay dem daal bu téye fa dara jël la ñam hmm. ay man fay koo daal hmm. hmm. ko tuba texe li man ñaal na ko xam ne faxat jeng na xulóobum seeni xol ilay jëm ci moom ñii ku leen gërëm loo ba ñaanal la da nga defaru ko xam waylul mbugal li man ñaal na koo xam ne baatu fanaan na njarnoo ne di ñaan yàlla xale mm. ah, yi ci moom mm. waaye ku leen soxnal bañ jóg ci yow la yàlla mm. sa mbir jeex na de waaw waylun mbugal li man ñaal na koo xam ne baato fanaan nañ yarnoo ne di ñaan yàlla xale ah, yi ci moom suma waddaani topp mu tagguma wan talakate mu boyu waaw daani mu dénk ma alxalaka njàqare mooy tele mu bi mu waxee ni danga ma tàggu rek a ñoom falam asal dañu ma ku haani di jàng ku mm. li ajlihi ngir abu seydin mm-hmm. al fikara xilaabi mm-hmm. waa tasawwafu te may yuqoolu may may nimsi mm-hmm. ila xibrati ma jëm ci li nga xam ne la kara tudd bi ma joxee gannaaw heure bu ne may ko xelaat mm. ak ma waxoon ca ba ñoo tàggoo mm. ndax ca la ne mm. wala ne wa kullama samsaytu bépp bu ma gëstoo ma laajtee mooy bu ma xuutakoon bu ma bu ma gëstoo bu ma laajtee xabarahoo solo min rukbaani ci gawaay wa jawaabatil buldaan ak daga kon réew mm. kuntu damay nekk kaman di mel ni koo xam ne xaawara waqan tenn mm. nag ma aji nekk ju amul mm. aw naa daa walla mu wa saxara tan daj sama wala aji sax daju xam ne woon sax ci biir mooy saxara tan sama waaye ñi nga xam ne ñooy faral de wëreelu xam ne ñooy dañ kumpa ku ma ci abu seydin daal du tax ma jëlee ca laaj ga benn xam-xam mm-hmm. laaj ko ko daal du tane laaj ko bahima mm-hmm. laaj ko ko du tane laaj ko jamaat mm-hmm. kenn waxu ko ci moom dara wa kullama tanshaytu wa kullama tanshayta tanshaytu bépp bu ma gëstoo xabare woo solo min rubbani ci gawari mooy ñii tukki wa jawaabatil buldaan ak dagaa koon réew yi kuntu damay nekk ni koo xam ne mm. haa wara waqanteer na ajma aji nekk ju amul xel mm. te muy bahima mbaalu ko deme mm. aw naa daa walla mu asaxra ton doj sama aguraa ji tax te muy lu amul woon ilaa an ba ma dajee banda taraxil amadi ci gannaaw yéex ak diit wa taraxil kamadi ak yéeg ak njàqare rakban mbooloo ay gawar setti qaafiliina hmm. ñu de way wëññeeku hmm. min safarin tukki tukki hmm. bañ demee na ba kumpa gi yàgg te métti nag benn bis ma am ñu ma dajeet ñoo xam ne xam naa ci tourné lañ nekkoon waaye dañoo wëññeeku te laan la xëytu bu ma dajeet ba nga taraxil amadi ci gannaaw yéex ak wa taraaxil kamali ak yére yu njàqare xarak ban ay gawar xaafile nañu réew ba ñëw min safarin ci tukki fa qultu ma ne leen ma ne leen xam mi hal min muxarribatin xabar min muxarribatin ndax tukkee na ci aji sore xabarun sax dox bi nag lu ngeen ci indi xabar bu ngeen indi fa qaaloo ñu ne ma inna indana naka nekk na fi ñun mm. la xabaran solo mm. axraba bu gën a mm. min an xaayi ci an benn baat la bu xam ne daf de lu ñuy wax te amut ismun bila musamma la ñenn ñu ne waaye dafa jeex ñu ne benn picc la bu daan fëkk ngir tey mu dajal ab yonent mm. ma ne bu daan fekk bu daan fëkk doom yi nit ñi di lekk mm. mu dajal ab yonent yonent bi moo ñaan gerte la jeex mm. tenen waaw nee na nee nañu xam sala tam safwaan la yonent bi dox ci diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Insa xam nga turam dikul ci alquran inna indana naka nekk na fi la xabaran solo axraba bu gën a tumaranke min an xay ci an xa mm-hmm. wa te gën a héemu mm-hmm. min namari zarqa ci gisam zarqa ul yamama mm-hmm. jigéen la jox xam du daan jublu sore sore mbir balay dikk dëkk bi mu nekkoon di biñ ko nangul yëpp yëpp xare mosul leen a bett ndax ku leen a waajal lu sori wax ko dëkk bala ngay mën a fasaaltu ma laaj leen idaama leeral li nga xam ne xaalo wax nañu ko hmm. waaye kilo ak ñu natal lii bi maa ci li nga xam ne iktaaloo ndat nañ ko hmm. mais xibaar bi lum de nett li ma ko bokk man ki demutoon ngeen hmm. yéen doxe woon gis ki doxe woon ko nett li saa kaw ñi nett li ne annahum naka ñoom alammu wàcc nañu bi saruuja ci saruuj mm. banda an faraqa ci gannaaw bu tàggaloog saruuj mm. alors loolu kufarul ajam mm. faraaw ñu gis aba seydiha abu seydinam saruuj ma almaarufu ma de mu ñu xam alla bisa mu oddo assuufu suuf wa amate mu jiite assuufu fa sàppe yi julli ñu ñoom ci seen dox bi dañoo dem sorooj mm. bi ñu demee fekk yëngatu fa amoon dal na mm. ndax ña fa wàccoon loxo jógee nañ fa mm. abu seydin mi daan wëreelu ci biir àddina bi ñëpp xam ko ñu fekk foofu mu ngi nekk sofi yu bu mag a mag nekk limaani jàkk wasaara mu mujj bi haa ci sorooj as saahida de ko dëddu almawsuufa kare ku ñu melal hmm. xam ne bu ñuy melal tey ñu dëddu àddina yi hmm. suñ dalewul ci moom itam hmm. daanaka ci moom la ñuy dalee duñ ko fàtte mukk fa qultu ma ne leen atanoona yéen a ngi jublu sal maqaamaati borom maqaamaati ma ne leen déet borom maqaamaati kama dajee doon dëkk sàngam dajee moom dëkk sàngam fa qaaloo ñu ne ma innahum al'aana léegi suñu karamaati <laughs> léegi doot borom maqamaati borom karamaati la de su mm. nekkee mu ngi dund ci waram mm. mu ngi bànneexu itam ci topp yàlla dana mm. bu baax a baax fa xafasani fa xafasani xooma muy gësam ma ani sama weerante ilayhi jëm ci moom man ale du ko bayee nii fahabasani jañ ma ilay jëm ci abu seydin anni sama werante bi man daal ma indi gis ko rek waraye tuha ma gis ko fursatan mu di màng gu xame laa tudaawa def ko sànq te ne occasion la pour am layu tukki daal baax na loolu la pour am léegi nag tukki moo def su mu gis mu laxas rihlatal muhib di laxas ak aji xadu wasirtu ma dox naxwahu walla abu seydin seeran mu jiddi doxal aji falli booba rek la waaj ba sama waajay xemb rek ah ma dal di jëm foofu ñu ne fala bu seri nekk te mooy sëroj nga dox dox bu xam ne doxinu ku ku lu koy dox ñor la hatta halaltu ba ma wàcc bi masjid yi ca jàkkay Abu Seydin ma dem ba ca jàkkam de wa qararati mutaabadi ak sax ak saxuwaay bara ba nga xam ne mooy jaamu xayam way daa ci mbetteel huwa moom xat na bada sànni na mu suxbata ashaabi yi ànd ak ay ànd ndoor fekk naa mboolo yum doon jaaxasoo ñëpp tasaaroo na leen tànnatul ànd ak kenn ku dul ànd ak yàlla rek salaw yu bëri génn na ca boppam man asara naasa lam taslam diyanatuhu walam yazal bayna tahrikin wa taskiin am na loo soo ko mayee sa bopp ci nit ñi doo wàcc am njëriñ ak bu ne dañ lay jël dina mel dina mën a kii rek moo tax yenn yi nangootu ko woon waaw ah, ma instar mi la zikri bayna naasi waxda bihi fadaka aslamu li dunia wa li diini man asara naasa lam taslam diyanatuhu walam yasal bayna tahrifin wa taskini xañ na booba loolu la doon dund daal wantasaba te mu sampu fi mihrabihi ci jaamoo kaayam te mm. sax sax jaamoo kaayam rek mm. amatul soxla ci kenn mm. ilzam xirfataka wa baytaka wa bayta rabbika a nit métier ak néegam ak néegam boromam wax dëgg buñ jëlee ci moom <coughs> buñ jëlee ci yooyu buñ jëlee liñ moom dootoo am jotati dootoo amati joti ah nit dafa a jël lim dafa jox dafa war a jox métier lim soxla. Mm. jox néega boppam bi lim soxla. Mm. jox néega bi yàlla bi lim soxla. ah ilzam xirfataka. wa baytaka. wa bayta rabbika. loolu la demee dégg woo moom soo xabaatin boroomam mbàjj la. mu ngi amee mbàjj yi rey saada suuf maxlulatin bari bu ñu defal ay rëdd rëdd mm. mu nekk boo xam dañ ko defal ay rëdd rëdd mm. wasamlatin ak lambay mawsulatin bare bu ñu jokkalante yére bi mu sol dañ ko ñëwee dafa daxee ko ci ay morso yu bokkut fekk na loolu ko dayal saa de suuf yee la waaye duut nag loolu ci la tasawuf nekk tasawuf fi nekk dëgg-dëgg rek mooy ragal yàlla génne ci jikko bu suufe mm. dem ci jikko bu kawe waaw mm. ah, melokaan bi sorian ah, gëdëmut mm. yar gëdëmu ko nga bañ caa nekk nekk ci melowu sorian ah, gëdëm yar gëdëm ko loolu mooy tasawuf waaye dul ne ko day bi rek ci lañ am soxla dëgg rek ko yëpp tooroo ma daal de ko rek ni ma ko gisee xaw ma koy ñeme maa bataman wega koo xam ne wala ja na mu alal usoodi ci gaynde ma mm-hmm. ne ko jàkka dama ko mm-hmm. mel ni ku jàkkaarloo gaynde nam koy wegee mm-hmm. fekk du benn ñàng bu ma wan waaye ragal yàlla nag bu dëggoo ci rek sama borom tabaraka wa taala dafay wane dafay wane màggam ci moom su boobaa nag da ngay gis ñëpp ko loolu moo jaay nekk rek mm. man xaafa llaaha mm. xaafahu kullu shay'in mm. nit bu ragale yàlla yàlla koy ragal lépp koy ragal wa man lam yaxaafi llaaha ku ragalul yàlla nag axaafahu kullu shay'in lépp koy ragal loo noonu la demee rek dégg <coughs> ma fekk ko mi man mu bokk ci nga xam ne simaahum seeni mandarga fi wujuhihim nekk na ci seeni cëlmaay seeni xar min afari sujudi ci jeexiti sujud nit la koo xam ne boo fa ne jàkk rek da nga seetlu ci cëlmaay li ne kii jaamu kat yàlla dëgg ni laa ko fekkee wala ma faraxa ba mu sottalee nag min subhatihi ci doga wirda xayyaani nuyoo na ma hmm. fi musabbihaatihi ci baaraam sànni kaayam hmm. dama ko fekk ci wirdaam hmm. ba nga xamee ne ñëw naa it dafa continuer wirde wi rek bi mu paree dama fasi nuyu ma min xëyri an naxama ci lu muy wax bi hadisin ci lu xees wala sax bara laajtewu bi hadi bi hadi eh, bi hadin ci benn waxtaan mm. wala sax bara laajtewu mm. an qadimin ci lu yàgg mm. wala hadisin du jàggeen lu neex bi ma yëkkatee baaraam bi daal fala xem laajut ma benn waxtaan laajut ma lu xew démb laajut ma mbiru tey itam min xëyri an naxama ci lul muy wax mu baatal mm. bi hadisin wenn waxtaan mm. wala sax bara te itam laajtewul mm. an qadimin ci lu yàgg wala hadisin du caageen aji xees summa aqbala topp mu jublu ala awradihi ci wirdam bi nga xamee ni fasil na ma dafa continuer ci liggéeyu bisam rek wa tarakani mu bàyyi ma ajabu may yéemu min ijtihaadihi ci góorgóorlu muy himu lool daal kii ni mu doxee jàmbaar ci jaamu yàlla mm. wax bi du may ñee mm. man ñi nga xam ne yahdi dana gindi leen mm. allahu yàlla min ibaadihi ci jaan ci jaamam mu ne dëgg dëgg daal jub rek ma jëriñee mooy sakkanal dundu àddina mooy neexal dundu àllaaxira jub rek ma jëriñee mu maa ngi wax loolu mooy tax dundu àddina am bénéfice mooy sax dundu àllaaxira du nof lay bu ànd ak teraanga itam walam yasal dañu fii xunóotin ci jaamu xunóot baat la boo xam ne yóbbu xaale na mboolem xeeti jaamu yi wa xusuuyan ak toroxlu wa sujuudin ak sujuud wa rukuuyan ak rukon wa yaxbaatin ak toroxlu lam yasal dañul fi xudumatin ci jaamu hmm. wa xusoyen ak toroxlu hmm. wa sujudin ak sujud wa rukoyen ak rukon hmm. wa ixbaatin ak toroxlu mooy mokk mokklu ci kanam yàlla wa xudoyen ak toroxlu ilaan ak malab ba mu matal iqamatal xamse taxaway taxawal julli yi juróom wa saara te mujj alyawmu tey alyawma tey am si di démb mm-hmm. léegi àgg naa ko fekk ko ci liggéey mm-hmm. la ma ko fekkoon ba mu àggee ci war naa a wax ak nit pësin la def mm-hmm. ba ma pësinee nekk na ci dam nekk ci wiir dam ba julli tisbaar jot ñu julli mu dellu ca nekk ba takkusaan jot nit ñi dikk ñu mu dellu ca nekk ba timis dellu ca nekk ba gaxee dellu ca ba suba mu doone na mu doxale ne juróomi julli yi hmm. fa hiinan kafa waxtu wam wëññee ko ak man ila bayti yi jëm ci néegam hmm. léegi nag bañ jullee suba ba àggal nag hmm. ñu war dem ca dal wara war a noppalu tuuti maa del at ci jàkka ji bañ demee ba foofa waa sama ni te mu cëraleema fi xursi ci mburum wasayt yi ak diwam bañ demee ba nga li nit war a jox nit ci ñam jox na ma ko ci li muy lekk man mm. moom te mooy seen mburu suuf bi yooyu mm. bañ demee li la def mm. fa yéena idin ca boobale bañ demee ba nga xam ne jàkka ja nekk naa ba fekk fa juróomi julli in kafa wëññeeku na biye ak man ila bayti yi jël ci néegam la ma door a wax na àgg néegam waa sama nii te mu ma fi xubsi yi ci mburum wa yi ak diwam ba ma demee itam jox na ma fa lekk koomam yi muy dundee su ma naxaada topp mu guur ila musallahu jëm si jullee kaayam ba ba mu ko defee dafa delluwaat ci jullee kaayam ba mu jullee ca néeg ba wa taxalla mu féex bi munaajaati mawlaahu ci déyeg borom boromam mel ni jaamu yàlla dana soxla hatta izal tama ba mel xatee al fajiru fajar dem naa ba fekke naa ak moom julli suba ba ca gexe ñu dem kër ga bañ demee defee na nii ci guddi gi ba fajar mel xatee wa haq xatee al haju al ajru yool il mutahajjidi ñaal aji fokk nga xam ne ku doon fokk te yàlla tax yaakaaram nañ la yool mooy guddi gi dundalee na ko ay rukk ay rakaat ay tasbihaat aqaba mu yël na tahajjudahu fogam bi tasbihi ci sabba bam naafila ba nga xam ne lu ñuy yaakaar ci naafila guddi xam na ko dafa nekk ci kurga de wirde de wirde de wirde jëm fajar summa tajaa topp mu tëdd di ñaatal mustarihi tëddino tëddëg aji noppalu ba fajar jege see nag tëdd na tëddinu kuy dal lu tuuti ndax bu demaatee jàkka je gën a mën a am kàttan ci lim war a taxawu mooy mm. julli suba gi muy àndal mm. wa jaala mu xaraf yu rajjihoo di dellutu mm. bi sawtin ci baat fasihin bu daaji mu ngi wéy lii nag ak fasaatul lisaani gim xam su mm. ca nuurul basirati àndee rek mm. bu waxee day leer lool mm. mu ngi naan xalit di kaaral arbuay wal mahadil murtabaay wa zahinil muwaddiay wa addi anhu wadaay wandub zamanan salafa sawatta fihi suxufa walam tazal mu'takifa ala alxabihi sanii kam laylatin awda'taha maasiman abda'taha li sahwatin ata'taha fi marqadin wa marja'i wa kam xutan hasastaha fi xisyatin ahdastaha wa tawbatin nakastaha li mal'abin wa marta'i wa kam tajarra'ta ala rabbi samawati al-'ula walam turaqibu wala hmm. sadaqta bima tadda'i hmm. wa kam hamasta birrahu hmm. wa kam aminta makrahu wa kam nabatta amrahu nabdal hidal muraqqai wa kam rakabta fil la'ib wa futa amdan bil kadib wa lam turahi ma yajib min adil muttaba'i jàng loolu mu ne xalli na nga bàyyi iddikaaral arbain fàttale ko ay wàccu waay ay kër mm. wal mahadi ak miinu waay almurtabain bay lolle ko waay mm. wasaani ne aji laxas al mm. muwaddihe ku daa ji tàggoo yëfi démb ya nga xam ne ay poñati àddina la ay yëngatu yi caaxaan la génne ci sa xel mi waxaat di te nga bàyyi an mu ci loolu wadax te nga bàyyi sa xelaat li war a doon mm. mooy booy jaat ba jegal li nga yàqoon mm. wan dub na ngay jooy na ngay méttilu mm. samanan jamono salafa joj jiitu na sa watta joj ñuulal nga fi joom asuhufa ay téere li wéy ci sa dund bi te nga xam ne sa téere danga koo tilimale ay bakkaar loolu moo la war a métti nga fet noo ko deferee wan dub na nga jooy samanan jamono salafa joj jiitu na sawar te joj ñuulal nga fii jam asuhufa say téere mm. walam tasal te dañuloo moo takki fan daaji sax mm. alal xabihi ci aji ñaaw ak sane ji daaji ñaaw mm. kam layla teen bari na guddi aw dax taxaa gug dénk nga ko maasiman ay bakkat ab dax taxaa yooyu fent nga leen ñaata guddi nga jeexal ci ay moy yàlla ay bakkat li soowatin ngir bànneexu bakkan atantaa ah, bu topp nga ko hmm. ndeg bànneexu bakkan boo topp rek hmm. fi markadin ci yandooru waay hmm. wa madjaen ak tëddu waay wa kam xutan bari nay jeego xasastaa yooyu xiir nga leen fi xiseetin ci toroxande ahdastaa bu sos nga ko seetal rek li nga buuragum jëm ci loo xam ne jagut ci diina jagut ci ngor mm. da liggéey loolu say tànk mm. seetal loolu mm. wa tawbatin bari na tuub na kastaha boobu jëtt nga ko firi nga ko limal abin ngir foo wa martayen ak sàmmuwaay seetal li ngay def ci bakkaar wane ne réccu nga ko gisa delluwaat ci nim bari rek te dara taxul lu rek topp sa bànneexu bakkaar wakkan xutan bari nay jéego mm. hadastaha yooyu xiir leen mm. fi xisiyatin ci toroxande mm. ahdastaha gug sos nga ko wa tawbatin bari tuub nakastaha gug firi nga ko teppi li malabin ngir forek waaru matan ak samway wakam tajarrata bari na boo jaayee njàmbaar boo jàmbaaree Mm. ala rabbi samawaati mm. ci borom xasamaani aloola yu daway sowe mm. jëfandikoo bakkaat ñeme bakkaat kooku xam njàmbaar la ci sa digganteeg sa borom a ah, bëri na boo engagé bakkaat te doo ci dara ci sa digganteeg yàlla walam turaqibu fuglu hula ko yëgu la ne mu ngi janoog yow te fa xayee fii dégg wala sa daxta dëggaloo fii maa ci li nga xam ne taddaxee da nga ko xoote mm. yaa ngi naan ab jaam nga ci jaami yàlla mm. waaye melo wu déggu ak mabudiya mm. xame xuloo yow kay melo seytaane nga xame yow kay melo bahima nga xame yow kay melo ndeg ment nga xame loolu bokk la melo malaka nga xame xam nga bokkuñ dëgg rek wa kam tajarrata bari na boo jaayee njàmbaar ci borom asamaan yi aloola zaman yi dafay kawe walam turaaqibu fuuglu hula ko mooy yëgu la ne mu ngi janoog yow xam sa lépp wala sa daxta dëggaloo fii maa ci li nga xam ne taddaxee da nga ko xoote ak ak njaam gi ngay xoote melo yi déggoo ak njaam tallaw ne kolooji ay of ay afaaf munaqida lil ubudiyya loolu lañ lay gisee wa kam xamasta bëri na boo xeebee bir o njekkam mm. dëkk di jàmbat mm. te am nga loo sante mm. bëri na boo ko defee kam aminta bëri na boo hóoloo mag rehoo pexeem a def lu bon te doo am dara looy ragal sa diggante yàlla bàyyi lu fade fade te doo xam looy ragal ci sa diggante yàlla wane ne rek man kay gannaaw di sangam laa dara du jot man kay gannaaw maa ngi liggéey nangam dara du jot yow ak koo mën a àndal mm. ak loo mën a liggéey mm. jote wala sañ-sañu sama borom dara mm. te sama borom dañ koy ragal di sañ-sañam loolu moo tax nit waru foog ne xam na lenn lu mu war a dëgg ba bu ko neexee mooy yàlla nit waru foog ne xam na lenn lu mu war a dëgg ba bu ko neexee bàyyi lu yàlla santaane waaw dégg nga wa kam na boo xeebee bir rehoo njekkam wa kam aminta bëri na boo xooloo mag rehoo pexem wakam na basta bari na boo sànnee amrahoo ndigalam nabdal hida kem sànnik dàll al muraqqa wari bu ñu daa loo xam ne ponk dëgg la nga faale haade ko ni ngay faale haade dàll wu ràpp bañ sànni wakkam rakatta bëri na boo gaawee fillaaye bi ci fo bëri na boo amee kattan lool man cay wax waaw man caa def man caa xalaat mm-hmm. te loola nga jox sa xel mi jox ko sa jëmm ji jox ko sa kàddu yépp nag mm-hmm. ay po rekk la mm-hmm. dul loo xam ne danga ci amee njëriñ luy dimbale sa dund bi dul loo xam ne danga ci amee tiyaabu ju lay njëriñ amamal la loolu bëri na boo ko defee loolu mooy caaxaanee sa bopp rek waaye nit ku nit ku bëgg teral boppam warul def loolu ah nit waa teral boppam ndax ku ndax ku yàlla teral ba pare la wala xat karam naa bani aadam hmm. ah sama borom mu ne moo teral doomu aadama yi hmm. teral gi mu leen teral moo tax mu xeeyale leen jox leen xenam hmm. teral gu baax a baax a baax ah, mu xeeyale leen jox leen xenam seetal rek yow ni nga doxaatee dara fa yàlla sama borom ni mu màggee de la gërëm nga de ku muy jëflante xel mu baax a baax dina gërëm nga de ku muy jëflante ak yow ni nga doxalee dara fa moom mm. ah moom ni mu màggee mm. waaye nangoo na la yow nga de ku muy jëflante mm. gis nga ko bu baax a baax hmm. loolu teraanga jum la defal la hmm. teraanga jooju feeñal na ko ci biir sa bind rek hmm. feeñal na ko ci lim la wan ci kaw la gis nga ko bu baax a baax nit rek mooy mbindeef moo xam ne wax dëgg yàlla su bëggee la mën naa lekkee ay loxoom wala boog mën naa jël beneen jumtukaay da ca lekkee waaye mbindeef yu bëri su ñuy lekk ak lu ñuy mën a lekk sëgg sëgg teg ci seen gémmiñ lekk rek la ci mën a loolu teraanga bu ko yàlla defal nit ki la mm. ci ni nga xam ne ci ni mu ko bindee la mm. te itam noonu la ko yaatalee ci biir kawnu bi xam mm. ne yoo xam ne buñ demee bay lekk yàpp yàpp rek la ñuy lekk xam ne yoo xam ne suñ demee bay lekk gàncax gàncax rek la ñuy lekk gis nga ko bu baax a baax gis nga ko bu baax a baax nit nag ci benn jamono mën naa lekk yàpp mën a lekk pepp mm. mën a lekk lëjum mm. loolu nit mën na ko mm. ci benn jamono mën lekk meññat mën a lekk ren selon bu baax a baax nekk dala toggal ceebu yàppu defal la ci ñaam bi defal la ci jaxas xam nga ñam bi ci la mm. seetlu la ko baax a baax yàpp bi xayawaan la mm. jaxasu bi meññat la mm. ci benn jamono nga mën a boole yooyu di ko lekk loolu sama borom ni mu la yaatalee ci lim la jox la waaye mbindeef yu bëri mënuñu loolu mënuñu loolu waaw ah, ki la teralee bindee la nii teralee la yaatalee la ci lim bi def nii terale la xam na ne duuna dara waaye gërëm na la ngay jëflante ak moom mm. ngay doya dal sa bopp bay sàggane seen diggante mm. kooku daal dëgg dëgg du nite nag mm. te nag nit warul doya dal boppam te nag nit warul doya dal boppam moo tax nit warul sàggane diggante moom yàlla ndax su ko defee raw na yoonu doya dal boppam dëgg dëgg dëgg dëgg nag adam ne waaw akam hmm. hmm. na batta bëri na boo sànne am rehoo ndigalam nafsan hisa sànnik dalla almuraqa wade wuñu daa te boobaa na yow sa bopp nga sànni de hmm. wa kam rakatta bëri na boo gawe fi laaye po subaa sa bopp ngay doxaa dal rek wa foote wa fuuta bëri boo tuddee bil kasi bi ci am dan ci tey walam turaaye sàmm ante wuloo maa li nga xam ne yajibu dana mu min hadi ci kóolareem al muttaba kare gu ñu ta kare gu ñu topp gis nga ko bu baax a baax jàng loolu dégg nga ah dégg nga ama fa huwa fi l axirati ama man kaana fi hadihi ama man hadina bi leen huwa fil aaxirati ama mm. ah ku fi nangu wuute gëm yàlla mm. bu ëllëgee ah fa jullit ñi jaar te mucc moom du ko mën a gis dégg nga ku fi nangu wuute ku fi nangu wuute góorgóorlu ci yàlla bu ëllëgee ñu mat ñi bañ jaar ba àgg ca seen maqaama yi ah du ko mën a gis du ca mën a xàgg du yaatu aman kaana fi fa huwa fil aaxirati a'maa hmm. loolu moo na xam bu baax rek teraangam fii la koy liggéey hmm. baax na foofu أبي بدمي قبل زوال القدم قبل سوء المخرع mu ne fal bas na ngay xoto hmm. siaran na demi lambay ga moom réccu la mandor gam réccu hmm. cosaan hmm. mu ne na nga taxoo réccu hmm. wakkub te na saa bi ba demi ay tawi deret janna nga jooye ba jooy deret ndeg réccu qabla zawalil qadami ci njëkk a tarxees ak ndëggu bala tas xees ci kaw siraat di am mm. wa qabla suil mm. ak ci njëkk ñaaw ak nërmeluwaay mm. wala xar-xara di dikk mooy dem yu mujj dee rek moo def fo buñ ba àggee amatul nangu tuub walaysati tawbatu lilladina yacmaluuna ida xadara ahadahum almawtu qaala inni tubtu l-aan wa qabla suwayil masrain ak ca njëkk ñaaw ak nërmeluwaay wax daan na ngay toroxlu fodoo al muxtarifi toroxlu aji tudd na nga xamee toroxlu ku nangu ne moom jubadina waaw na ngay toroxlu toroxlu ku nangu ne moom jubadina def yërmande yàlla rek muy sasuwaay bañ a gis sa xam-xam hmm. bañ a gis sa jëf hmm. gisal rek yërmande yàlla muy sa suwaay walus hmm. na nga weedu maladal muxtarifi weedu aji fàggu bàkkaar ki mu wóor ne bàkkaar na dafay hóolu ne yërmande yàlla rek moo mën a doon muccukaayam noonu nga war a jàppee sa bopp wax si na ngay moy hawaaka sa bànneex sa bànneexu bakkan wan xaarif te na ngay jeng an wëlis ba neexu bakkan mm. inhirafal muqli ay jeng ak aji guddi mm. te itam lépp loo xam ne yëfi hawaa la soo mm. boo nga xeex ak sa bakkan da ko mooy bu baax a baax a baax ndax hawaa jëmee wut kenn fenn fenn fudul safara wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah saw boobu bu ko topp hmm. boo ko toppee mu réeral la hmm. te nag inna alladina yadilluuna an sabilillah hmm. lahum azabun shadidun bima nasu yawma alxisaab ma bakkañ tasoo yaa ngi jamaj watani yaa ngi doxaadi wa muxdamun homri te li hëpp ci dund gi fa niye jeex fii maa ci li nga xam ne ya duru dana lor mm. almuhtani ya aji kotti mm. wala sa tëddee yow bil murtadi engaraaji jaaji mu ne foofu foofu xàpp nag mm. lépp ci dund bi jeexal nga ko ci kasaa te ba tey mën a gulaa góorgóorlu na ba tey mën a gulaa xewote na te lépp kasaa mais bu demee ba xam ne moom bu naxut boppam wóor na ko lim dund nii du ko dundaat war na seet nag li def nag wax dëgg yàlla nag nan la ko war a defee bu sakkan waaw bu demee ba àgg foo xam ne boo naxut sa bopp ñi seet dundam nit ci aada rek waratoo seenu ne la nga dundoon da nga ko dundaat ah li def nag war ngaa seet noo ko organisé bu du kasaaraate ah dana ca baax de illaa ma ba kañ tasoo yaa ngi jamaj rek watani yaa ngi doxaat rek bañ a góorgóorlu ba moo tax mu somb te li ëpp ci dund bi fan yee jeex na te li ëpp ci dund bi dafa jeex fii maa ci lu xam ne duru dana lor almuxtani yaa ji kotte li nga ko jeexale lu ci bëri kasaara la amalul la njëriñ dalay lor sax wala te te dee dee bil murtade nga daa jaaju te ba léegi mel ni jaaju fa la wa kañ nag mm. ama tara xanaa gisuloo asayba bi jaaw mm. waxata mu jaxasoo ci sa kawari bopp mm. ji la ni nga perta kawar gu ñuul mm. waxata te mu rëdd xitatan ay rëdd ci sa bopp ku ñu xool kawar gu weex ma yellu te ku feeñ na waxtu samat raxak bi jaaw bi faw di ci wàlli baatam faqat nooye ya tàggees na ko bi jaaw dom ak lay tegtale te mage mooy al marhalatul axira min marahilil hayati kon ku dem ba àgg ca soo de xaar dee rek ndax moom mag mag moom ku ko dog nga dee ku dee nga dee rek waaw mag moom mu dee ku dee mu dee rek loolu moo ci nekk dégg <laughs> baax wa ma yellu ku feeñ na mu waxtu samat raxak bi jaaw bi faw di hii ci wàlli baatam faqat nooyee tàggees na ko way hakke ay xonaa sa yërmande mooy mm. ay gore mm-hmm. yaa nafsu yoo sama bakkan mm-hmm. ihrisi xiiral mm-hmm. ala tiyaadil maxlasi ci sàkku mucc waay wataawe te nga topp liñ la sant waaxlisi te nga sellal sa jëf wastamee te nga déglu ak nusa laye biir waxe te nga mokkal laye biir bakkanam digal ci boppam ne ko li war doon sabab bu soxla mm-hmm. mooy foo jaat ba mucc mm-hmm. liñ lay sant xam ne ci la sa mucc mm-hmm. loolu de ko topp de ko def te lii tax de jëf ji xam njëriñ te mooy sellal ko te yàlla tax nga de ko sellal nga di déglu laaxee kati biir yi bu baax a baax bañ a déglu hawa bañ a déglu saytaan ihris yi xiiral ala tiyaadil maxlasi ci sàkku muccuwaay wataawi hee te nanga toppe waaxlisi te nanga sellal wastabi hee te nanga déglu annusa lay hee biir wa hee te nanga mokkal xam nga ku ay jaan laxasu balaa lijjanti njar mu mooy naan ak yooyu dafa war a yittewoo Hmm. ah su ko dara jotul. ah bu doon a xam. bu baax a baax. ah loolu halal de yombe ak yooyu. da a lijjanti bakkaar yi la topp. yoo xam ne boo ca jógul. daf la halal daf bu la dikkee amal la njëriñ. mooy li ma la wax ko ay jaan laxatu. ko balaa lijjanti jar mu may naan ak yooyu. dafa war a fexe tàggoog jaani jàkk. ah su tàggoog jaani ba xam ne mucc na nag. ah, hmm. ah dara hmm. mën a waaye fii tàggoogu rek jaani rek hmm. moom xamagul fu mu jëm hmm. waaw am na ñu yoo xam ne ku ko def hmm. wax dëgg yàlla seet daal noo tàggoog ñoom muy gën a yitteel seet daal boo jaar ba mucc léegi dañoo di lii dañoo di lii dañoo di lii dañoo di lii te wax dëgg yàlla jéemoon a xeex ci li la tax a mu doon <laughs> di ñëwaat di di ñëwaat di di ñëwaat di di ñëwaat rek. Mm. te wax dëgg a seet li mm. na seet mm. waxta biir yi na bi man ci ki nga xam ne madaa wéy mu. wala bi man ci ñi nga xam ne madaa wéy nañu. minal quroni ci maas. wan xadaate mu jeex. da ngaa seen ñi wéy. seeni mbir jeex takk ak lu ne doxal ko ci àddina yow bu dee xalal nga xam am na ñu la ëppale woon bu dee nguur nga xam am na ñu la gënoon yaatu kilifteef bu dee xam-xam nga xam am na ñu la gënoon a bërile bu dee bayre nga xam am na ñu la gënoon a xew te na ragal mufajaatul qadaa betteeg betteeg dogal hmm. te it ngay wattandeku nag hmm. addina nax la ba ngay dee ci lu wóoru da dee hmm. wahaadiri wahaadiri wattandekul an too daxee bu wóoru jéefat la wante hiji na ngay soobu yow bakkan bi su balal huda yooni njub fexeel xam li sabilu rasaadi nga tegee wadda kiri nga def fàttaleku mm-hmm. waskar radaa gaaw ak mm-hmm. te it nga xam bu baax ne dee moom mm-hmm. bu xasee ba ñëw dara dara dara du ko na mas waa ki ak naka sa saxuwaay xadan hëllëg fii xaari lahdin nekk na ci dara tab laat te mooy bàmmeel bal xayam bu daa te bu hëllëgee ci paxam bàmmeel ngay tëdd xalal mm-hmm. du fa nekk mm-hmm. du fa nekk mm-hmm. sa jëf rek yéen a fa ñett la jëfam ay bokkam alalam su dee dee na xalal ji moom fa ne woon rek lay nekk du ko buuse yi ngay joxe ki boo dëkk sàngam ki boo dëkk sàngam ki boo dëkk sàngam ñu ànd ak moom ba ci buntu pax mi kii wax lii kii wax lii kii wax lii hmm. waaye suñu yàggee ci dugg pax ma nag kenn du dugg ñoom hmm. foofu dañoo dëkkee hmm. su ko defee jëf ja nag muy ànd ak moom dugg ci pax ma <laughs> kenn du baax baax buy jëf ju baax moo ko koy wéttale di wéttal bu ko jibu ah buy jëf ju bon it day doon wéttal bu ko filte rek waaye moo ko koy wéttale ane moo tax ne fu mu wéet la waa na maswaaki ak naka sa saxuwaay wax daan hëllëg fii xaari lax din nekk na ci dara ta bammel bal xaayin bu daa jiwee aan dana métti lu la hoo ñaal ko baytal bi laa ci néegam rab néeg la bu xam ne ko addinaam jeex lay doon néegam wal mansila ak wàccuwaay al xafra bu daa ji wéet al xala bu daa ji féex nekk ne boo xam ne dara du fa fekk nit xanaa jëfam jom handa toon dem fa Omorida Safri. Mm. ak rootuwaay way tukki. Mm. al ula ñere way njëkk. Mm. wallahi ak aji heeg. al mutabin ku daa ji topp nekk ne boo xam ne. ñëpp a ku njëkk ga. ak mu mujj ga. ah moom boo demee ba yóbbu ne. da nga fekk fa ñu bëree bëree bëri. te ñu fa tëraloon seen i asaara nga fa. loolu nag doy waa doo kaay. ay yàlla tuubi. fa inna al mawta qad haana mm. wansil hawa fal hawa ma sala fattaana mm. ama tarayna al manaya mm. kayfa tulhiquna gadan wa kayfa yudrikuna kayfa kayfa tudrikuna gadan wa tulhiqu uxrana bi ulana fi kulli yawmin lana maytun nusayyuhu nara bi masrahi asara mawtana gis nga bu baax a baax ama tarayna al manaya kayfa tudrikuna xadan wa tulhiqu uxrana bi ulana fi kulli ya dégg nga fi kulli yawmin lana maytun nusayyixuhu nara bi masrahi asara mawtana wa mawrida sabri teeroo tuwaay way tukki al ula ñere way njëkk wallahi xaraaji heeg al mut ku daaji topp ñu mm-hmm. njëkk ñëg ñu mujj yi mm-hmm. baytun néeg la boo xam ne yuraa def na gis mm-hmm. man koo xam ne audian dénkees na ko néeg boobu xaddam ma hoo tappe kooku wastu audian te dénkees ko xiidu salaasi adrohen kem ñetti xasabu bandal fada yi ci gannaaw yaatu wa saxaati ak néeg boo xam ne fu nit mën a baxoo bu fay dugg mm-hmm. kenn ñetti xasa bu ci lay toll mm-hmm. soxe boobu mu xamoon ay kër yu bëri mm-hmm. xamoon ay saal yu ñoo yéem du ca dara bu jaay dugg kenn ñetti xasa bu rëy lay toll waaw baytun néeg boo ne yuraa def na gis man ki nga xam ne oo di a dénkees na ko néeg bi xaddam ma woo tappe kookule wastoo di a te ko qiidu salaasi adroen kem ñetti xasabu mm. bandal foda yi ci gannaaw yaatu mm. wa saate ak yaatu mm. la farqa di tàggale ay yaxul la hoo bu wàccet néeg boobu aji jommale aw ab lahu wala aji dof moom ku jonge la mën naa nax ku ku tëmëñ la ku ne koo nax yëpp ji xem sallaaw moom def ci néeg ba rek moom jonge xagut ñàkk ba mën a dem hmm. naxante ba doo fa dem hmm. laa farqa dee dayoo hmm. a yëfoo la hoo bu wàcc dee tàggale a yëfoo la hoo bu wàccal ko daa hiyatun aji jommale muy ku jonge ku muus aw ab lahoon wala aji dog aw ab lahoo maanaam duñu ko tànnee aw moosirun wala aji ñàkk aw man wala koo xam ne la hoo ñaal na ko mulkun nguur ka mulki tubbaayin ku mel ni nguur ak tubbaan buuri himyar yi ñoom lañ daan wax tubbaan moo tababi tababian yi bari nañ ne nga gisee buuru misra ñaan ko wax firawna faraxina yi bari lool buuru fursu ñaan ko kisra ak yi bari nañu tubbaan itam buuri himyar yi moom lañ ko wa baadahoo te nekk na ci gannaaw bi kër googu néeg boobu alxas bu gaaral mm-hmm. te néeg boobu buñ ko rombee mm-hmm. delluwaat ci geneen dund mm-hmm. génnee fa ñu dajale ñu njëkk ña ak ñu mujj ña kenn ku ne ñu wane yëfa waa kuñ fa wanee lu ñaaw mu am gàcce goo gën a dis gam doon ragal ci ku ko wanee lu rafet mu am ndam lu ëpp li ñoo damu ci àddina li ñoo damu ci àddina loolu moo tax bëgg ndamal àddina warul laa jaral dugg ci lay jural gàcce ak àllaaxira àddina ñim jaboote ñi nga jamono anteel bëri wuñ ñi nga jamono anteel ñi ngi ci xam bëri wuñ ci lu tuuti la kem yow ñi nga xam mm. wax dëgg yàlla bukki nit bëri wu ci mm. te ñu gàcceel la ci kanam bukki nit rek mu ngi diis ak yow mm. kon nag gàcce boo xam ne ñu njëkk ñam ñu mujj ñu ñëpp koy fekkal waaye xaw a day waaj waaye xaw a day waaj waaye xaw a day waaj roba bante foo nekk na ci gannaaw alhamdu gaaral te mooy wane mbiri bindee fi alladi gaaral gu xam ne yax wi dana mu laq alxayya aji kersawu mm-hmm. wal badi ak aji ñàkk kersa mm-hmm. mooy dajee bu xam ne ku baax ku bon ñépp koy fekkee mm-hmm. wal mubtadi ak aji aji sos wal muxtadi aji roy ku fent kuy toppe ñépp koy fekk ba ma nag ku xam ne raa sàmm na mu mooy kuñ faloon mu yélife wama la ko xamee royen ya meef na ko mm. ak kuñ téléphone muy toppee mm. ñëpp la koy fekk mm. waaw ñoom ñëpp duñ taxaw taxawaayu lenn lu mooy rek ay jaam lañ waram bi bu ne limanil mulku yow tey ku moom nguur gi kenn du wax man kenn du wax diw sàngam waaw ah, kañ daan wax buur ci àddina du wax man de ka daan tuddee keneen buur ci àddina du tudd kam daan tudd ne diw sàngam déedéet moom yàlla mi la kay mooy tontu ne lillahi lwahidil qahar xanaa yàlla al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat tey de moom lu waaye def dañ la ko fay laa zulma al yawm tey de tooñ amul fa yaa mafasal muttaqi xoonaa texeeg aji ragal yàlla mm-hmm. warima abdin ak bona fi sab jaam mm-hmm. xad wuqiya boobu fegalees na ko mm. so al hisaab yi ñaaw ak hisaab mm. al mubiqi buraaji halage mm. wa hawla yawmil fasaxe ak tiitam bisas tiit mu ne foofaree ku fa am xel mu dal xam fa hisaab bu rafet fo yaay ki texe ndax foofa ku fa siggi sa njàqare jeex na sa gàcce jeex na sa coono jeex na sa naqat jeex na mm. mm. lenn kott moo lay defe mm. te du jeexati nof lay bu ànd ak teraanga rek moo lay defe te loolu mooy taxe dëgg oo ku fa sig jàqaram jeex na naqatam jeex na coonoom jeex na gàcceem jeex na lenn kott moo koy defe nof bu ànd ak teraanga loolu mooy man dégg nga baax a baax waaw waaw wala yemeen façon ak tiitam bisa bisa tiit ba dégg nga ko baax a baax jannaatin adnin yadxuluunaha yuhallawna fiha min asaawira min dahabin wa lulu'an wa libaasuhum fiha hariir waqaalu alhamdulillahi alladi asaba anna alhasan inna rabbana la gafurun shakur alladi ahallana daara almuqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luxub wa yaa xasaara man woonaa perta koo xam ne baxaa beew na wa man ak perta koo xam ne temps daa jàggati na wa taxaa te mu beew wa sabba te mu taal niraanal waxaa safaraay xare li ma tax min ngir lekk aman may wala xamante mm-hmm. poñetam àddina nag mm-hmm. comme taxa xotti hurmatullahi mm-hmm. dugg ci lu ñu ko xaye bu ëllëgee perte rek la cay jëlee waaw gis nga bu baax a baax walladina kafaru lahum naaru jahannam mu ne xéefari safaraw jahannama la ñuy am la yuqda alayhim fa yamuutoo wala yuxaffafu anhum min adabiha duñ leen dogalal dee ñi dee noppalu mm. déedéet seen yëg dañuy yaa mm. te duñ leen xoolee faral dara ci mbugal ma mm. kadalika najzi kulla kafurin lii mooy seen fay de woom yastarixoona fiha dañ faa nekk di yuuxu naan rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal te soor nañu bëggoon nga génne ñu delloo at ñu àddina ñu liggéey fu lu bokk la dañ fa doon liggéey ndax lii bu ñu dalat borom bi awalam nu amirkum ma yatadakkaru bi man tadakkara waxoon nañ leen fa hmm. lu ngeen liggéeyee hmm. lu tax lii du leen dal hmm. wajaakumu nadir xebaloon naa sama mu wan leen li ma leen a sant ak li ma leen a xaaye yëpp amoon na léegi laa fasoo mi rek fama li zalimina min nasir amu leen ku leen fee dimbale <laughs> dégg nga inna laa yaalamu xayba samawaati wal ard dégg bu baax a baax dégg bu baax yaa man e yow buur bi nga xam ne alayhi ci moom la nekk al mutakal sukkandiku waay eh, dégg nga eh, dégg nga ah eh, wasabbate mu taal niranal waxaali mat amin ngir lekk wala wala wala xense yaa man e yow mi nga xam ne alayhi nekk jam almutakal sukkandeku waay xasaada yokku na maa li nga xam ne biya nekk na ci man min wajalin ci jàqare li maa ngi xam ne caraxtu fàggu naa min zalalin ci dar xees ci ci sama dund almudaya bare bu ñu sant yow mi xam ne sukkandeku waay kem li ma toggoo ci samay bàkkaar ci sama dund bu tasaare bi lu ma jaaxal papa yàlla na nga jéggal li abdin ñaar jaam muy karimin buraaji jël warxam te yàlla na nga yaram bu ka al mun sa jimil joyal romba ñunu to aji dokkel to ante yow ola mun yaa gën a xëy ci ko xam ne rahima yërëme na wa xëy man amin yaa gën ci ku ñuy ñaan te ay kun ñaan قال الحارث بن همام mu ne falam yasal dañul yuraddiduha di baamu wayile mu abu saydin bi sawtin ci baat raqiqin bu daaji sew mu ne wayi lay way ci baat bu ndànk wala baat bu sew baat wa yasiluha muy ko jokkale bi safirin ci fokkat wa sahiqin wa sahiqin ak himmat boole ko ay jooy yoo xam ne ragal yàlla rek moo tax hatta ba kaytu ba ma jooy li bu kayi ayna yi ngir jooy ak ñaari bëtam jooy yi na maa jooy moom kama kuntu ni ki ma nekke woon min qablu ca njëkk kii de jooy alayhi ci moom dama ko namoon ni mu fekkoo gis ko sama mm. loolu defoon ci man jooy mm. su ma demee ba gis ko jooyee ma ko fekk muy def mm. tax na maa jooy summa barasa topp mu génn ila masjidihi jëm ci jàkkaam bi wudu'i tahajjudihi ci njàppal posam jàppalam jàppoon doon ca naafila guddi njàpp loola moom la amee bu julli ji fajar jotee moom la ànd moom la dem julli ji fantalaqtu ma bayu ritbahu de aji toppam du muy dem jàkka ja ma topp ca mm. wa sallaytu ma julli ma aman ànd ak ñi nga xam ne salla julli nañ xalbahu ci gannaawam mm-hmm. ma bokk ca mbooloo ma julli mu jiite mm-hmm. wala man fadda ba tasaarooyee mm-hmm. man ñi nga xam ne xadara teew nañu wa tafarraqoo te ñu tàggaloo saxara baxara par mosa mosa mooy tafarraqu min kulli wajhin kenn ku dem na daal bi ni ñu ba dem ba nga ne kenn desatu dina ko baax a baax kenn desatu wa tafarraqu te ñu tàggaloo saxara baxara ci anam gu ne axada na yoo xëy ni mu dem rumtulu bi dar si ci dar su mooy lim war a boobu la soobu ci wirdam commencé nag ak jàng gàllank wayax bi ku muy togg yow ma xoo teyam ci xaala bi am fii ci mooluwaayu démbam nam defoon démb mu nekk ca tey wa fi dimni zalika te ci biir loolu yurin mu ngee baatal mooy mu ngee jooy ir naan al raqoob bi baata la raqoob raqoob mooy jigéen joo xam ne day faral day am doom rek muy faatu mm. xol bi di tàng muy bëri lu muy jooy mm. dégg nga mm. wayab kii te muy jooy wala bu kaa yaaquub du caageen jooy yaaquub ato sabantu bu ma biir lu ne annahu naka moom iltahaqa yéeg na mu bil mu gis ne kii daal yaakaar naa ne kilifa yi gën a màgg ci awliyaawul ummati ak gën a ci seen bu usri ba naan da lees na qalbuhoo xolam awal infiraadi soppu bi kii daal foog naa ne daal lim def bànneex fi mu ne mooy wédde borom waaye daa tukk am soxla ci nit ñi fa axtattu ma daldi rotal bi qalbi ci sama xol azmata listihaali dogug laxas ma dogu ne su ma yeboo daal dellu ñibbi wa taxliyatahu ak féexalam wa taxalli ak féexam ànd ak féexam bitil kalxaal ci wala melam ma gis naa kii daa fi ne ko yow bàyyi ko boromam rek bàyyi ko lim bëgg fa kaannahu daane koom tafarrasa fettantal naa maa li nga xam ne way tuddee ne na mu mel ni li ma wax yàlla dafa koo xamal ittaqoo firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nuuri bi nuurillah am na ñoo xam ne seeni foof daanaka duy doo foof ndax sama borom moo leen di gindee ci leer ak boppam ah ittaqoo firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nuurillah ñoo xam ne seen foof la koy def nag mooy am xam-xam bi bu jëfee mooy def ci nit loolu ah man naa mel bi ma alima wala tawallaahu ilma ma lam yaalam ah leer ko ko di jub dafa xeeb ko jëfandikoo xam-xam mooy def trace ci nit def bu baax a baax wa koo sifa te wuññees ko bi ma ci li nga xam ne ah faytu nëbb naa ko xam naa ne kii borom kas ko la wa safara mu dal di fokkat السفير الأول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الألباني dafa wéeti mu ne hadis bi danger la day wax lu ko neex rek hadis bi sahih dëgg la waaw loolu Albani bu ko waxee dafa wax lu ko neex rek hadis bi sahih dëgg la waaw sahih dëgg la am daa téere busaratul mu'min fi bayani sihhati hadisi ittaqu firasata al mu'min dégg bu baax a baax am naa téere mu ngi fi albani lay dello waaye wax lu ko neex rek naan addis bi daayam la waaye day wax lu ko neex rek albani dafa wax lu ko neex rek gis nga ko bu baax a baax am nañu ko gëm torop na mais teewul dëgg dëgg rek mooy dëgg waaw lu ñu la gëm-gëm boo waxul dëgg it waxoo dëgg rek am nañu ko gëm torop na mais teewul dëgg rek mooy dëgg lu ñu la gëm-gëm boo waxul dëgg waxoo dëgg rek jaam rek la dégg nga bu koosee fa te wuñ yéen ko bi maa ci li ne ah faytu nëbb naa ko gis nga ko bu baax a baax ku ne bu ko neexee critique Buxaari nekk fii di wax ñaari wax waaw gis nga ko bu baax a baax fa sabara mu dal di fokkat kem fokkat ak ku ragal yàlla waxan dafa bëri bind ndi ragal yàlla wal awwaa suñ ba ibrahim la ci jublu inna ibrahima la awwaahun alim ma qaraa topp mu jàng ne fa idaa azamta fa tawakkal ala allah dama mel ni sama xel mi daal fa ci nekk aye bii la wax fa ahjabtu ma dal di booyal henda saalika ca foofale bi sidqil muhaddisina ci dëgg la way waxtaan yi ma xam ne lañ ma waxoon ne innahu al aana dul karamati dëgg la waaye xam tu ma hóolu ne am na fil ummati naka nekk na ci mbooloo mi xeetu yonent bi muhaddasiin ay muhaddasoon mooy ñoo xam ne sama borom daf leen di xamal kumpa su ma danawtu topp ma jege ilayhi jëm ci moom kama yet noonu ni kiy jege almusaafi aji joxante loxo ma jege ko mel ni ku ko bëgg jox loxo wa qultu ma ne ko aw si ni dénk ma ayyuhal abdu yow bile jaam an naa fi budaaji la yeji dana bëggoon sa ndénkaane xayrul kalami ma qalla wa dal na ndénkaane bu gàtt lay faqal mu ne ma ijalil mawta nusba aynik waa ba siraku bee ñaari ijal na nga def al mawta dee defal dee dina ko baax a baax ci ñaan na nga def almawta dee mm. nus baxay nik mu mel luñ samp sa ci sa njëbët ci mm. ñaan na nga def almawta dee mm. nus baxay nik ci sa njëbët wala mel luñ samp ci sa pegg te bu ne daal del bàyyi xel ne dee moom mu ci sa pegg loo wóor wóor a dee istiraat ko bay ne mooy tàggu sama diggante ko bay ne ak sa diggante léegi man pare naa ci li ma def ci sama dund te man ngaa dem ci lay amal njëriñ mooy fi ne sama lay def ñu boole man pare naa ci man daal la ko mm. wax wa danto ma tàggu ko wa habaraati mm. te samay na ñu ngi ñeel ma axi tukkee ci samay katiba te safaraati samay fokkat yetta saxaan na danañu xéeg na taraxi tukkee ci ay delli baas mooy ronga ñu ngi wàcc samay fokkat a ngi xéeg waaw wa kaana nekk na haasihi lii xaatimata talaqi bi mu jëkk dajee fi lañ mu jëkk dajee baax na foofu ñu waajal waxtu yi قال الشيخ الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بلغ له مرجعه من هذا في آخر المقامات مجد مقامات التي مقامات قمنا أنشأتها صصنا لنا مقامات ما عمل daanaka mbir yi ñàkk a xam sama bopp la. Mm. ndax day niru day niru tuddoo xam-xam. Mm. ci la xem. waam lay tuhaa te ma cite leen ñoom maqaamaat yi. di mm. lisaani bi tiraar yi ci lan la ñu nooru. indi naa ko ndax mënu ma ko ñàkk a indi. waqat pour jiitu weesu lóob na ma. kilaan asabtuha jëm ci mu fuglu luwaat ko bis ñaara di ci wane wana daytu semoho te alayha ci maqamali fi soo xeli xatiraat ci jëngi dingat su ma ko bindee su ma ko nëbboon sax xañ na waaye wane naa ko ku bëgg a def naq bi ku bind naa la maqaamaat yaa ngi nii bind naa ko wane naa ko xaga hmm. li yëpp nag hmm. maa maarifati ànd ak sama xam hmm. bi am naa ci naka maqaamaat yi min saqatil mata min saqatil mata mu ngi bokk ci rotiti bagaar lu ñàkk solo la loolu ma xam nag maa maarifati ànd ak sama xam ci nega maqaamaat mm. yi min fatali maqaam mu ngi bokk ci raditi bagaas rek tamit maa mm. bokk na ci li nga xam ne yestal jibu dana mu xeewoo ay ñu mm. baax fat ko wala yu temps jël ko jënd daanaka kuñ ko jaayee sax fan la ko jënd ndax gisuma ci benn am solo تجعل الجمر أخلاقه تدعو المقت إلى تلك الورى ma bokk na ci li nga xam ne yow ji bu dana mu xeeyoo ay yu baax bat ko wala yu tama di ko wala waxa suye nii su ma dikkaloon nooru tawfiq leeral tawfiq su ma doon jàmm bu am wa nabaatu dama xool li nafsi ñaar sama bakkan nabara sabiri xoolal aji yërëm doon ko xam ne damay ñëwee sama bopp la ko tax su konoon ne sama wari sama ayib alladi ayib bi nga xam ne lam yasal mosul dañ ma tóorante nañ su ma amoon sens dama doon bañ a bind rek ndax kenn doon ci man mustawa bu suufi kenn xamul lu mu mën xam-xam. Hmm. waaye bind sañoon na def. Hmm. Ah, wala waxeetu wala waxeetu yéen yi bu ma dikkaloon. nooru hmm. tawfiq leeru tawfiq. wa nabartu te ma xool li nafsi ñaar sama bopp nabara sabi xool ak aji yëram. yakatartu kon mu ne baawaar yi sama ay. alladi ay ji nga xam ne. la ñu dal mosul dañ ma tuuraan dañ ma ko. walakin li fi nekk kaana nekk na taalika loolu te mooy xamal taalif bi maxturan dinañu bind fi kitaab bi ci lawhul maxfuus waaye lu yàlla dogal la mu ñàkk usirtu wama sahbi bi muslim la dal waxa wala farasi mahrun wala rabbuhu xumru walakin ida humma alqadaau ala mriin falaysa lahu barrun yaqi wala baxru loolu moo ci nekk rek dañ ko jàpp ko ca xare ba mm. mu ne xam na ne ñi ma àndal ñàkkuñ la mm. xam na ne itam fasal bi du fasu tëlee xare mm. xam na ne moom itam du ko tëlee xare waaye dogal mu mën a ñàkk dina bu baax a baax man astaxfiru maa ngi allah taala min ma li nga xam ne aw dantuha dénk naa ko maqaamaadi min la laxwi ci ay caaxaan neeni waxi neen mm-hmm. wa abaatiri laxwi ak ay riri waxi riri po lem mm-hmm. di dem muy ay waxi neen mm-hmm. ak lem di dem muy riru po maa ngi ñaan yàlla bu moo ko jàppee mukk ndax itam ñoom nit bu lum bind dafa dem bàyyi ko kon boo demee bay bind danga war a bind loo xam ne ku la ko woon yawmal qiyaama mm. danga la neex mm. wa ma min kaatibin illa sayabla mm. wa yabqa dahra ma katabat yadaahu nit ku mën a doon dana bind dem bàyyi bi lam bind fala taktub bi kafika gayra shay'in yasurruka fil qiyaamati an taraahu sunnul al-misri ku siiw mm. mm. mm. la di yàlla ku siiw la mu ne dama dem ci tefes bi gis algune mu ngi toog jàng ma laaj ko ne ci dundal yu gudd amul dara daal moo mën a waxee moom ba fëy na xanaa lu mu jël bindukaay wala mu bind ci baaraamam nema muni al lisanu min al kalami li annahu hadaful balaa'i wa jalibul aafati man damay bañ wax ndax day bëri ku xaaral ku wax ku xaaral loolu la bind mu ne al lisanu min al kalami li annahu hadaful balaa'i wa jalibul aafati wa idaa nataqta fi kulli rabbika zaakiran su dee wax rek tuddal yàlla laa tanta wax ma du seen xaalaat bu ko fàtte leen mais xale yu doon la jël kon abi de mu ne utaana man maa wax mu ne wax wuuru waaye moom moo bind te bind wuuru man ma bindal ko ne wa maa min kaatibin illaa sayabla wa yabqa dahra maa katabat yadaahu falaa taktub bi kasbika xayra sayyin yutulluka fil qiyaamati an taraahu xale bu baax a baax mm-hmm. mu ne xale bi daanu rek ndeke dee na <laughs> ndeke dee na xale saa xare léegi dee ba day am léeg-léeg day am léeg-léeg de benn waay boo xam ne dafay dox borom benn darab alquran mooy ci faru ne nit ki daa bind ni mu alquran ni mu ni mu wegoo sëñ ba ngay jàngale gune yaa ngi jàng mu seetlu benn xale bu benn rek di jooy rek di jooy rek mu jooy loolu tax di mu ne ko man daal li ustaas bind ci sama ji moo ma jaaxal kallaa sawfa taalamuuna summa kallaa sawfa taalamuuna kallaa law taalamuuna ilmal yaqiin tahdiidun ba'da tahdiidin wa taxwiifun ba'da taxwiif daal moo ma jaaxal mu ne ko de danga xaar bu subaa bu ñu la bindalee nga door a jooy bu subaa dañ lay bindal mooy la ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يوم عن النعيم فيقل لي وقفات رئيس إدارة الجنة زيارة كما تعرف indemee ji woon àttekat bi ba mu ko toppee topp ko topp ko ba xam mu demee dafa wax jàngalekat bi ne xale bi boromam moo ko soxla waaye kii jaar moom buy rey nit ci aada xale boromam moo ko soxla waaye kii daal fekk moom si ñaar muy rey tegu ko daal waaw jëlal bu baax jël xale bi rek bàyyi mu ne maanaam jëlal bu baax a baax waaw loolu moo tax yenn mu jëm yoonam lu ci tegee rek am na fu mu jëm waaw loolu la ko wax yoonam lu ci tegee rek am na fu mu jëm moo tax ne man astaxfiru maa ngi jégalu allah taala min maa ci li nga xam ne aw daxtuha dénk naa ko ko min abatiri laxwi ci ay neeni waxi caaxaan waa dalili laxwi ak ay réeri fo waxi réeri fo waa tartitoo maa ngi sàkku ci moom gindeeku illa ma jëm ci loo xam ne yaasimu dana mu musle mm-hmm. min astahwi ci jamaj mm-hmm. kuy mu di te dana mu xejjoloo gulam mm. bi mu jéggal mm. maa ngi mu dal ma ci lu noonu mm. mu jéggal ma innahu naka moom borom huwa ahlu taqwa ku xeewe ñi baragal la wa ahlul maxfirati ku xeewe jéggale bàkkaar la wala yu xeerati mu daal di méngoo yi ci dunia ci àdduna yi baax na nu fi yàlla xagal te barkeel ko téere bu riis la de alxuraan de boo koy jàng benn baat képp moo ci nekk boo xam ne de bu tukki moom xama moo lum xeetoon mooy fa damdama alayhi rabbuhum damdama léegi mooy baat booy fekk ci alxuraan te lenn lenn lum xeetoon amul ci ma xam ala xana loo am bi baax na baax baax baax na ko beneen incha allah ma xama ma am naa ko léegi mu ma seet ko hmm. waaye wax dëgg kenn mënu bii de man ma xam ba dina sax man xam naa ko léeg-léeg ma seet ko waaye wax dëgg yàlla gërëm risalatu siiniya li ko def mooy baat bu ne fa am siin da koo bindoon ndég benn buur moo ko bind loon ab mm. xaritam mm. da ñaxtu ci seen digal mm. ene nun bëggee woon daal waa ji defee ko defee ko astabtihu maa ngi tàmbalee bismi samia ci turu yàlla mi da aji dégg quddus ko da aji sell waa sanjihu maa ngi sakku ana jaa faju xaajo bii sant yi ci dig ah bi ni samee ci turu yàlla mi daa ji dégg al quddus ku daa ji sell la astaghfiru lay tàmbali wa bi naa di ci ndimbalam astanjiru lay tàmbali siiratu sayidina siira suñ sang bi mooy doxalinu suñ sang bi dina bu baax a baax siratu sayidina sirat suñ sang bi mooy doxalinu suñ kilifa al isfil al al isfisilla numéro bi lum la ñaar la wala ñett mu ne kalimatun turkiyatun tutlaqu ala qaidil jiyus hmm. kooku siiram a sayidi kay sanga annabisi kadaaji foor sayidi ru'asaayi kay sanga buuri say fi salatine kay jaasi buuri orisat yal na watta wat na suwa bakkanam watanaara to yal na leeson suwa jantam wattafaqa yal na daje kun suwa wettalam wa basaqa yal na yëkkate ku xas suwa jëmbatam kilifa gi may ñaanal xam nga nu moo defee am istimalatul jëli si mooy jénguloo aji ji soo xasee ba toogaaleeg moom doo nii ga dem ba ko wa musaamatul anisi ak cëram aji wéttale sooy wéttalanteeg moom cët bu ne fa la koy seen wa musaadatul kasiri ak dimbale ku ñu jam ku ñu jam ku ñu damm ku ñu damm wa salibi ak ku ñu lekki te itam képp ku am tolof tolof dana taxaw ko musaadatul kasiri ak dimbale ku ñu damm wa salibi ak ku ñu rek wa muwaasaatu sahiqi ak dimbalante ak aji sori mooy jàmbur wa nasibi ak jege ñaale ku mbokkat ci ak suñu sang bii de jikko yi de lañ ko xamee moom wa siyaadatu ak ak canga nag tasta dana mu sàkku istidamata sanani taqoo yoon sang nag boo ko doxee bañ xam la ci melo yi sang fa ngay ngëp càng la bu mu rëcc melo yooyu mu rëcc wa hirasati rasmi ak wattu mandarga alxasani bu daa ji rafet càng bokk na ca la koy masal boo xasee ba am turu rafet ñii la séenoo rafet waxtu wu nekk loolu nga def wattu wa samitu dégg naa bil am si démb démb dama dégg tadaarusal alsuni joxanteeg làmmeñ yi jàngalanteeg làmmeñ yi sulafata xandari si sangara sangara si sangaram sulafa xandari sorew fii sal sali ku aussi yi ci ndox mu sell ak ay kaasam dama dégg xibaaram bu neex démb bu mu defar ay nit waaw wa samiatu dégg naa bil am si démb daal sol al sunu joxanteeg làmmiñ yi mm-hmm. su la fata xandariti sàngara saamu xandaritam la kila mm-hmm. faliku aussi ci nan gu la ay kaatam mm-hmm. wa mahasina majlisi masarrati yi dégg naa taari jataayi mbégteem itam wa ihsaani sumati siyaadati yi ak rafetalañ dégg talañ cangam dégg naa daal yi fi ngóor yi fi mbaax yim defal nit fasalabtu ma jiital asama ayam ba ma ko déggee rek laa dundee yaakaar ndax sama digganteeg moom wa tawassamtu ma settantal alistina awa léegi foone foone léegi daal ñu ne ma ñu ne ma ñu ma ci nga bokk wa ma néeg néegal na fi sama bakkan bi nekk saa yi ci buux maa ngi naan di ngeen ëllëg xol set um waa nasa um waa nasa di julata ak wéttalante ak wéy jataay yi wajarat suma jikki a saqari da topp a subula yoon ma taw déggee soo yoon wu nekk may ci séntu ba xam dañ ma ne buur bi kat nee na yow la soxla waa tatle ma te may laaj arusula ndaw ji waa tamee du may sori lu lool danaa si yet muy fàtte fàtte na suma tur xalaatuma mukk lañ ma fàtte wasaawiru may jànkuwanteer al wasaawisa ay jaaxle listiaara ci rasmi ngir jàll ba ko sama mbir sama mel sama genn mujj jaaxle bi mm. macha allah mm. wa sayfu salatin sayfu salatin alamirul isfisilla musafirun mm. aji jagoo la fi unsi samae ci wéttalanteeg déglu lu neex wayem lu neex yi jël na ko boole ko may waxas nun ku ay sàngara naanam nga jël na ko boole ko may salaa nii fàtte na ma de nii suuna ma dama bàtte wala yi sa si libaasu sulu bi lit ko dayeen nii suuna yunaasi bu dee askanantoor husna simaatin nabiiti rafet ak melokaani koo poa xam na ñoo nag fàtte soppe jàpput leen xam na ñoo de fàtte soppe moom jàpput leen fàtte na ma de waaye xam na ñoo de fàtte soppe moom jàpput leen mm. ah salaa nii ma fàtte na ma walaysa libaasu suluwi déet ko dayal niisu nag mooy fàtte soppe mm. ah yunaasibu de askanante husna mm. simaatin nafiisi mm. rafet ak melokaani aji foor xam na ñoo dee fàtte soppe moom jàppul leen rek wasan na yoonal na tanaasiye julla si fàtte fàtte lu ñam daan tooga fi mu ne ko andoon ak nit démb fàtte ko tey moo xàll yoon wi de waa su sa jaya gën cay ñaawi jikko nag sana sinsilin mooy fàtte fàtte lu aji toga wasarra bégaleena mm. bégloo heena wasan na yoonal na tanaasiye jullaasi fàtte fàtte lu wéy toogaaleem waasu sajaya gën tay ñaawi jikko yi tanaasil jalisi mooy fàtte fàtte lu aji toogaaleem wasarra bégalee na bégloo hee na ah kon baax na tegal xasoo di kuma yaañaa ndax wan ko do ci far ay mandarga lépp luñ ma daan xamee ci moom mu ngi koy bëgg a éliminer tax na gi seen xol sedd na wa tamsir rusoo ay mandarga karam sir na boosi ni ki ni ki suula bakkan ni ki suula bakkan ba rek ni ki kay mandarga yi ñu koy fàttale ko ko faree daanaka rey nga ko ndax mandarga yooyu ñooy maye turu def lil insani umrun sani séeru baaba nandal na alxusaama buur buñ naan xusaam bi kaasi sola bi ci kaasa sàngara xam naa waa te xàggut ca moom waasaama nii mu tëraleema ma boosin ci ñëkkal a xar kanam wa boosin ak waa kala nii mu màndalee ma xasratan ci méttilu wasaada mu wattee loolu méttilu googu sakratal xandari si manditeeg sàngara li xas yi ngir waw gum waw xol ndeg gum soxat ci man ah man mi mu nekk man man la bàyyee méttilu kam néegut ca moom jox na ko naan gu neex ah, waa kala nii na ma xasratan méttilu li xas yi ngir soxat gum soxat waw waw xolam mooy néeg gum néeg man rek wataa da mu watee ko sagratul xandarisi mandi sanga sa ak soobu xeddi naa ko hoddeere li sota mustaatibi ko dayeeg aji ñaxtu danaa ñaxtu ba ñu xam ne ñaxtu naa waa am si ko danaa jàpp itam walit ko imsaaka saalin jàpp aji niisu yi aussi kay naa ko hawtoon danaa xem ci moom ba xam ne ni fi ne xamatu ma ñoom yàlla usakkiru dana bind hmm. siinatihi ay siiram hmm. siiratan muy siira bu hmm. xam ne tasiru dana dox asatiru ay waxi neenam kal basar demende arabul basar xaga mi ni dara bëri tàggalu daanaka maana yi bi foo dëgg la waaw bu na salaam bi rasulul islam kon ñu jàng maanaam dafay tagg dégg nga nu baax a baax benn xaritam lay tagg dégg nga way saala siini ya ndax leetari baat bu nekk dafa am siin bootooy mu ne unsi danaa tàmbalee bi irsaadil munsi ci gindig yàlla mi sos bindee bi saxa fii samak sopp bi séexi ci sëriñ bi samsi suhara yi kii jantab wéykat yi hmm. wéykat yi hmm. riisa yal na dungalees maasoo dundam yal na dundam naat hmm. wa fasaa te yal na siiw riyaasoo koddayam du rafet mooy yal na taaram feeñ wa asraqa te yal na jolle sihaaboo ay jumam wa sab sabat yal na bëri ñax sihaaboo ay mbeddam ay xàllam ay wàllam mu ne sama sëriñ bii di sama suwaara hmm. eh, may ko ñaanal yokkute waxtu wu nekk hmm. sama cofeel ak moom yu hmm. saakilu dana mu nidu mooy xabari soxa fii yu saakilu dana mu nidu soxafal mun tasi soppak aji mandi business waay ci mandi wal mustasi ak soppak aji jàpp ngel bir a soo ak ci ngel mm. wasaadi ne ak sopp ak aji ndawe mm. bi sarxi sababi ci ndawe ak ndaw mm. cofeel ak daal nit ak la ko gënal la rek waaw sama cofeel ci a seexu sam sonra lu ko nit mën a misaale mooy cofeel ak nit ak lam gën a bëgg usaakilu dana mu nitu saxafal muntasi sopp ak aji mandi bi naswa ci mandi naan katu sangara ni ko mandi neexee dégg nga li tilka ab kii wala ab kii li manzilatin kanat tahullu biha hindun wa asma'u abun wa asma'u wa ci sangara mooy man de suma jooy moom a tax di jooy de waaye affaire yi la hindu nekkoon ak asma de li tilka ab kii wala abki li manzilatin kaanat tahullu biha hindun wa asma'u day teelu wal murtasi ak aji nger biris waa nger kuy lekk nger ni nger di neexeeg moom ndax du dëgg yëfi bakkan la waa da koy bëgg torop sàlla mooy niroog sama sama sama soara ni ma ko soppee wa saadin ak aji màgg du saqi sababi ci xeeseeg ndaw wala ki nga xam ne dafa toll si ndaw mooy wala nga xam ne ak sàpp ak ila saba mi soraat jëm ci sedd ak naan naan bu sedd ni ma ko soppee daal cofeel ak nit ak la ko gënal ci mbir yi moom lañ ko mën a wax wa sugri sama sant nag xalaat tajassumi yi ci li tajassumi yi wala li tajassumi yi ci toggoo yi muy toggoo ma wa yi ak coonoom hmm. wa sawahidi yi ak yi seede yërmandeem hmm. kem ni mu ko gërëmee nag hmm. yi muy toggoo ci nit ñi ak ni mu nangoo sonnee ak mandarga yi teg ne ko am yërmande la ci nit ñi wa suuf yi sama cant di tajassumi yi ci toggoo gi muy toggoo ay mbir wa yi ak coono yi muy jànkuwanteel wa sawahi sabaqati ak way seede yërmandeer yu saakilu dana mu nidu sukkaran naasi di santak aji sakku moy kóoréer le dara di ko wut lil mun sidi ci aji xamle soo réer le dara di ko wut daje ku ko for nangu la ko jox nang koy gërëmee sala nun la ko gërëmee wal mustasidi ak santak aji sakku gindeeku lil mu sidi ci aji gindi wala nga dem bëgg la bëgg ku la wan yoon soo xamee ku la wan yoon na koy gërëme noonu la ko gërëme wal mu tasin ak cant ak aji sàkku yëg lil ba siri aji bégle wala mbir de sa kumpa jaaxal la xam ku la ci indil xibaar bu neex na kontaane kontaanee ci xibaar booba noonu la kontaane ci liggéeyu sëriñ bi yu saakilu dana mu nidu sukran naasi di santag aji sàkku mooy kuréel dara de wut lil mumsidi ñaal aji xamle wal mustafsidi ak santag aji sàkku gindeeku lil mufsidi ñaal aji gindi wal mustafsidi ak san ak santag aji sàkku fo xamal lil mubashiri ñaal aji bégle wal mustajiisi ak santag aji lelu mooy ko bëgga dajale xare lil jaysi ñaal xare al musammiri bu daa ji wagu wala koo soxla walla xare bu mat xare wallu ko na mooy sonta na mooy kontaane ca xare ba wasihaar yi sama mandarga man liñ ma xàmmee irsaadu sihaari yi mooy sadd wéyam dama ko sof ba nga xam ne wéyam de ko wéyantoo ku ma xam ku ne xamee na ma ko wais jaawul kaasi yi ak jàqaloo aji nëbbu nooneel wal mukasir ak aji feeñal nooneel bi nasri ci tasaare wéyam wéyam damay faral di ko yaatal ndax wuyu rafet la ñi ko bañ di xam lu leen jaaxal di xam lu leen naqadi wéyus jaawal kasu yi ak jàqaloo aji nëbbu nooneel wal mukasir ak aji feeñal nooneel bi nasrihi ci tasaare wéyam wa suxlii sama soxla man lii sama soxla te doy ma sëkk sëkk sëkk isa isaatu wasaa'in yi mooy siiwali taaram al wasaa'in jamoo la mufrad bi wasi'a la wala wasi'a li muy firi mooy toolab dër bu rafet boo xam ne fleur yëpp génn nañ moom la cosaanoo waaye fi naan lim ci jublu mooy jëfam yu rafet rek ak xibaaram yu neex a dégg isaatu wasaa'ihi mooy siiwal ay taaram wa tasiidu yi dégg bu baax a baax wa tasiidu safaa'ihi dégg bu baax a baax ak biral ay safaaham safaa benn gàncax la bu xam ne dañ cee sàmmee ñaare buy sax day sax par ñaar par ñaar ah dégg nga xaaral ma sëñ yaakaar naa ne wa safaahatu anwaaw raayi ndax du loolu la yambutu snayni snayni wal muraadu mislu ma taqaddama mooy feeñal jëfam yu rafet rek wal isaat ak gindi bari na lu may gindi itam bi su doori yi ci peri wurusam wasoonoo fii ak i wurusam ba tey mooy li ñuy takk bari lu ak diisoo bi tasfin yi ci tinu wa tasrif yi ak taral man daal lii sama soxla mooy ñi da ko déggal waxtu wu maa ngi seede sahadatal musannae seede ak aji xam alkaasif kuraaji huññi wal munsir agaji wisaare al mukaasif kuraaji leeral dara seede ne la in sadd wéyam moom sam suara yudhisu dana mu gëlëmloo assaiba aji bejaawu wa naasi agaji ndawe wéyam ñëpp la yem mag ak gune dafay far dafay caara naasi wayu naasi naasi ku ràññee ko ràññee ku ci wéy la foo moom doon waxee naan mas wastaw jaba ayub taba bi bi sahabi mu ne waa na ci loo xam ne jar na bindee wurus sarisi mu ne xañ na abiyaatun naasi la bu may wax may tagg aw nit da wax nuñ mën a nit mu ne ka annahum fi sudur fi suduri naasi af idatun تحس ما أختروا فيها وما mooy ñoom lu ñu nëbb ci xolam xam nañ ko dafa mel ni ay ay xel lañ yoo dencee ci biiri nit ñi ndax ñu xamee li ñi biiroo dañoo mel ni ay xel lañ yu dencee ci xoli nit ñi ndax ni ñu xamee li nit ñi biiroo ka annahum fi suduri naasi afidatun tuhissu ma axtaroo fiha wa ma axtamadoo yubduuna linnaasi maa tuxfi damairuhum ka annahum wajadu min alladi wajadu suñu dajee ak yow li ci sa xel mi dañ la koy waxal ba mel ni yow ni nga ko yëgee ñoom noonu lañ ko yëgee yubduuna linnaasi maa tuxfi damairuhum ka annahum wajadu min alladi wajadu dallu ala batini dunya bi zahiriha wa ilmi ma xaaba anhum billadi sahido ba mu àgg rek wéyu rafet la mu ne kooku nag sama arab bu wéyee kooku duñ ko tuddati kooku duñ ko tuddati moo tax layin saa doo sadd wéyam yu di su dana mu galam loo ab saa yëpp jaaw wa naasi ak aji ndawe wayu laa si dafa far dana far charan naasi wayu naasi wala musaahadatu te janoog moom ngeen bokko taw nga di ko gis kasti yaayu sohdi mu ngi mel ni mu ko bële salam moo dàqale wa tabasir rusdi te mooy jël benn njub te itam janoog moom rek foofu la ñor dalee wala musaahada wala musaahadatu bañanteeg moom soxna mooy bañal comme baax daa tusqi dana tax yaa di loo al musahina aji bañanteel mm. te ku ko bañ mm. saxe boo ngi yërëm ko mm. xam ne perte na wala musajaratuhu te xulóog moom tansuru dana mu tasaare al masahina ay ñaaw ñaaw te itam ko bëgg sural boppam saxe boo mu bañ a xulóog de wala musahabatuhu jiqi anteeg moom hay nag kooku tuf si dana mu dagg al ay al al asana ay buum wa tusiitu te dana mu buurloo mm. dana mu soriloo mm. a saytaan a saytaan xaaral ma saytaan wa tusiitu saytaan saata muy sori mm. a saata wa tuhriqoo la wax dëgg dana lakk a saytaan wala musaaxabatu jiqi anteeg moom hay tusu di dana mu dagg alastaana buum yi wa tusiitu te dana mu sori loo dana lakk a saytaana saytaan fa sarafan wana ma tedd nga li seexi sarafa wa dana ma soppok sop bi sin sinati jikkoom sarafan dana ma soppok sop say mooy jàng loolu ba benn yoon insha allah baax na ko ñu waajal waxtu yi bon asaaru samsu suara masuuratun yu ñu siiwee la wa masaahiruhu ay masaahiram mooy yëguwaayam wa masaahiru ak ay masaahiram mooy mooy yëg bi mu xam bay génne wayu rafet yëg lu siiw la waxee suratuhu xaandaaleem def ko xaandandoo maskuratun lu ñu sant la waxasa iruhu ak i géñoom ndax am ay bokkim fi ñuy sant lañ hmm. saa jiitu na hmm. shaaruhu wayam hmm. ak shuara ak waykat yi al musmail lii na ñu de way jaaw waykat yi nga gën a naw mënuñoo génne lu mel ni wayam waaw saa jiitu na shaaruhu wayam ak shuara ak waykat yi al musmail lii na ñu de way jaaw fasaanihi ku ko bañ kalaw kii hmm. hmm. hmm. ku ko bañ mas jubu xasa ku ñu jàqaloo ay baggatam la ba musaaxiroo ak aji jeqe àgay moom noonu kii kay ku ku ko bañ fee bu nga xam ci ci naqal ngay wala ku bëgg a defanteeg moom fee bu nga ci naqal lay dee man na xonxoo fi ayyu haaja wa darruhu fi silmihi law taxtunul aadaaw mais kii noonu noonu bi dañ ko xamul mais kii nii ku ko noonu. intérêt nga ko wutal waxtu bu nekk balaa du ma de nangu li nga am. kii ku bëgg loo xam da nga koy xaar da nga koy xaar ko lu maalihi. bi nawaalihi ma tajburul hayjaaw muy xaalalam comme janaaw la. Hmm. su demee xare ji daal ba mbagg yi rëy bu ko defee xarit bi di ko damm mbagg yi rek mm. loolu la nekkee mm. alxilmu yaktasiru min janaaxay maalihi mm. bi nawaalihi ma tajburul aadaw waaw ah, man na ko fi ay raaje wa darruhu fi silmihi law taftunul aadaw ci itam noonu la mel de fasaanihi ku ko bañ di masiwul xasaar ku ñu jàpp la ay bàjjatam la mu saatu ko ay ji xaar bu mu ay ñu da masiwul xasaar am jiwul xasaar lay dina bu baax a baax. su feeñal noonu. wasawaha ñaawal na. rakku suhoo boyaadeem. tarqiisal muraqqisi. boyaade aji boyaade. mbindam. ku gën a naw ci mbind rek de. soo ko leeralee mbindam ci de danga ko sax. patients woo ay xaritam est-ce que na woo ko tawat dañ koy jàmbat. Hmm. ne kenn mën da leeral dara. Hmm. wa ma asiroo ak ak i mbooloo hmm. wasaaqa soppuloo na hmm. wasiyoo njamala mooy taaralam hmm. woy ñi mu soppuloo asababa ndaw yi asumma ñu rewe gudd ci bakkan wasiba ak ñu rewe ju jaaw talla wéyam ñëpp ko nit xamul ma xamul ku ne faman sooruhoo lu ñu wisaare busaral masooki mbégam ku ñu sopp loola wa nasiro aji wisaaya yéen daal busaraaro he ñëpp koy kontaan sama iluhu ay jikkoom yu rafet masuuqatun lu ñu sopp la kasam wali yi ni ki sangaram wa sirri buhoo aji bokk ak moom naan aji naanu xaale mu tafsiroon aji bég la wa mu asiru ak aji shakurun santa koon la hmm. wa maskurun te ku ñoo santa la hmm. waxasu musa hmm. li fees bakkanam na sahamatu simmirin mooy ñawak wa bu haakoon ju xam ne yettiisu dana tey musa jiro ajo kulub moom lim feesee nag mooy ñaw ak njàmbaar ba nga xam ne boo bëgg a moom xam na jaar ba gañe la teewloo ko waxasu musaas yi li tax bakkanam sahamatu simmirin mooy ñaw boobu xaakoon ci tisu ko dana tey musaa jiraajo xuloo moom soqaasi koo ay puuritam mooy ay kàddum maxsiyatun lu ñu ragal ndeg fasaatu lisaani bi mu xam ak itam leer ak basiira gi mu am wasabaatu woo ñëw kaag buntu woo wala ñëw kaag jaasi sabaa masrafiyin ñëw kaag jaasi jay ko jug masaarif la jaasi ko buur na jug buur na wala jeqiku na sayiroo aji boccin e serri jam jaay ñëw gim ñëw moo raw jaasi masaarif yoo xam ne nit mer ba bocc ko ca xam wasabaatu woo ñëw kaam sabab masara fii ñëw kaag jaasi yooyu ko jóg masarif la mm. masariful yaman dëkk la ci yaman mm. dañ fa liggéeyee jaas mm. jaasa boo na mooy buur na sahiro aji boccin di ferri jëm ci hay safa saafaraana bil anasidi ci ay wëy an nasawa wëy mandi yi wa soppahum te mu ñeere la soo mande ji cofeer boo déggee wéyam hmm. da kontaan ba mel ni ku xëy hmm. waaye nag wéy wi la xëyal ci mandite gi hin na hmm. ci jeexit bu la yëg a bare te jëmm di ko yëg rek safa saafaraana bil ana sidi ci ay sadd wéy mandi yi wa te mu ñeere leen famas fi yi woo ku ñu saafara mos wan ku ñu sappour bu la saafaraay ci lii itam hmm. dana la bàyyi loo xam ni dee ngay waaj a hmm. wasaa kii ku koy xawa hmm. loo ko jàmbat jàmbat saa kii roo aji sant la ko waya su dana jooru waya tëssu dal de bég as sahihu aji nay li sadu yi jooru bu yëkkatee wayam jooru lu waaye doo nga fàtte xam wees xa ko dana ko dana hmm. hmm. ko nay insa do saddag we sam sumara o yu satiro musi do mu harala hmm. tajassama toggoona resiyani dikkal mu dafay toggoo coono yu métti ndég seet si ma fa sarrada mu dàq wax sati sama wéedaay saa soo xamee dikkal na ma du ma yëgati wéedaay wa basara bégalee na ma man saawu doxam bi hmm. bisrin ci mbégte bu hmm. baax si loolu gën a jojjoo moom hmm. su ma yëgee ne mu ngi ñëw daal xam naa dee ma kontaan saan su du ko danaa ko sardal siaran wëy bu xam ne yu sarriqu dana fenk sam su ko jantam danaa ko sardal wëy boo xam ne jantam dana fenk ba tasaaro waas ku du ko danaa ko sant su su naa sodal bi bu demee noonu waa so naa ko sant sukuraan cant xam ne hmm. te sinon dana siiw hmm. ba sayir waaye hmm. waa sodu maa ngi seede sahadata sahiril asiya seede aji seede mbir yi ah daw loolu tegu wa musminal ahsaati daa ji rek gal baljadi maa ngi seede ne la yu senlan na dana taxal mm. sahatuhoo sorin mm. suwaada aswaaqi tàkka-tàkkatal samay cofeel mm. saa su soree suma xol bi day mel ni luy tàkk ndég nim si wala yu senla masan na te dana tasaare nastuhoo sorin dégg nga ko baax a baax nastuhoo génna mooy sorin samla nasaati mboolam sama cawasaande hmm. so xasee ba sori ma hmm. du ma yëgati cawasaande hmm. ngeen baax a bu fi jegee daal moom rek mooy njaate gi moom rek mooy dal bi mm. su fi soree xol bi dara mënu koo defal mm. wa in na ay tum mm. asaabal qalba na yukumu wa in dana darukum kuntum lana sakana bu ngeen jegee daal yéenay dal bi boo leen soree nag amul lu mën a defal xol bi waaw na ay tum asaabal na yukumu wa in dana kuntum lana sakana mun la demee fa naasatu sayxa hmm. maa ngi laaj sëriñ bi ci yàlla hmm. ayas na lu ndax danay yëg hmm. bi si xaas ci sama yëg wéeraay ak sama ak sama ah, dégg nga way ak sama tiit li tasin yi ngir gunge mooy tàggoo wisaayeti ak sama tasaare dina fii di ñaa sadd wayam almawsi bërëb bu njam bërëb bu ñu taaral wéy bu ñu mm. taaral mm. di sax si ak sax gi may sax ku jëmum di ko laajte mm. bil israaqi ci su walance yi ak moom est-ce que na ko haa saahu jomb na muy ko ñàkka xam haa saahu jomb na ko toxa sii de ko muur sufatun lënt wa tax saahu wala muy ko dikkal wala yëpp si fon na mu settantal moom eh, amiru soara sarha sujooni samsu sumaara mm. sarha sujooni sara samay cëli waxtaan mm. waaye sara sama dëgg-dëgg sama njàqare ci mm. sutooni yi ngir sorim waaw wala est-ce que foo ne mu settantal sara sujooni dëgg-dëgg samay njàqare ci sutooni yi ngir ak sorim ak sama bokk li sujooni yi ci ay cëli waxtaan waxtiwaali ak sama soxloo li tabsiyati suunihi ci doxal mbiram siiwal mbiram na settantal loolu li yesut dangeen mu dëgëral jaasi sama xol wala sama dogu ko yusaari fa ak mu sap mu sampu muy mu xam inkimaas si sama gaaw sa yal na dundu moom sa dundu muntahin sal xusasati di aj yëkkatiku ci roo mustabsiral xasasati di aji bég ci ndetitu bakkan mansuusa sifa de kul daasi jaasim walla paakaam muntasira sarar di aji tasaaroo ci jaamin sattaaman kay ŋaññakoo ndil asraari ñaal way way heesi saxaasan di aji daasi hitte yi bila saari ci way yasrahu Hmm. dana wóoral mooy dana leeral hmm. yasrahu dana leeral dafay wóoral léeg-léeg hmm. joor su te dana bëgg këlam waawa wooye neen su te dana yëkkati al man xuusa lu ñu boyaade muy jëriñu waxtu wu ne du ma suye sa déedéel bas coobareel yàlla mi daa ji tëdd jàpp assalmatel assi laa jékkati jóge lal wa tasrifti ak teralam li ko suri basar ñaar ki dëlloo kii bëggal bi ndeer itam yonent bi wasaten maxsar yi te daa di ko nite ten waay ba sallallahu alayhi wa ala wa ashabihi wa sallama tasliman kasiran daiman abadan ila yawmi ddin hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah